waa ngi ci jàmm maa ngi lay fay maa ngi sant bu baax a baax maa ngi delloo ziar di nuyu say invité di rafetluwaat liggéey bi yokkal leen ma laasana waay kon Mbarak dina ko gérer léegi léegi c'est bon Pape dégg maa ngi lay dégg bu baax laasana allez-y voilà maa ngi lay fay di la delloo di euh, nuyu say euh, invité yi nekk ci plateau bi mhm. en face de toi Cheikh Diaby moom aussi maa ngi koy nuyu di nuyu say euh, invité comme ni ma ko waxee woon di rafetlu bu baax a baax liggéey bi ngay amal jërëjëf Lassana on y reviendra tout à l'heure pour prendre la déclaration du ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr de l'autre côté Cheikh Diaby se prépare avec ses invités pour euh, alerte au coronavirus après la déclaration chaque jour du ministre Cheikh maa ngi lay nuyu. mais Pape Sidi maa ngi lay fay. waa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax ak sa masque bu rafet bi. Euh, gis nga match dama ko kase en masque bi ak sama yére bi ñoo loolu mais baax na de am na solo nag quoi <laughs> am na solo kontaan nañu bu baax. kilifa gi na leen def waay. Inch'Allah. Cheikh Diaby, vous allez le retrouver dans quelques instants avec ses invités dans Alerte Coronavirus. Alors nous allons directement euh, rejoindre Lassana. Lassana démb xel yi xawaat na dalaat bërki euh, fan yi yëpp xel yi daloon nañ mais démb dañu dégg benn cas communautaire et ça fait toujours euh, peur Lassana. oui ça fait euh, toujours peur comme euh, ni ñu ko waxee rek cas communautaire cas cas positif rek déjà Pape Sidi dafa ragallu waxuma laak nag mu euh, nekk cas communautaire cas communautaire bi li tax mu ragaloo mooy laataa ñu koy détecter li mu mën a wàll ci ay nit mooy bari te xam nga souvent yaa ngi dégg ñu naan la Sénégal ñoom benn stratégie boo xamante ne tollaguñu fu ñuy defee ay dépistage massif donc ñoom kaa yi nga xam ne ñoom la ñuy suivre ñoom souvent foofu la ñuy jël di sëkk di def ay ay ay ay tests tests chaque jour moom la autorité médicale yi di ñëw di jox askan wi boo déggee nag li nga xam ni moom mooy cas communautaire rek na la leer ne Pape euh, test yooye noonu du jeexagum ndax kon cas contact yi day euh, gan di bari mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy suivre moo tax cas communautaire yi di euh, ragallu waaye nag démb li tax xel yi dal mooy li nga xamante ne moom la ñu am en terme de de de de taux de guérison boo xoolee yàgg nañ di wax ni Sénégal am na ñu wér parfois nga dégg benn parfois nga dégg ñaar waaye démb lu ñu am record ndax fukki nit ak juróom yoo xam ne faj nañ leen ci benn bés ñu génn l'hôpital dem wutali fi nga xam ne moom mooy seen kër nekk xibaar boo xamante day dalal xel yi ba tax na sax euh, loolu moo tax kon Sénégal ñu daal infléchir lii di euh, courbe bi ndax Sénégal sànq ñu ngi ci doon euh, waxtaan à la rédaction mooy troisième réew bi nga xamante moom moo gën baax les taux de guérison bu weesoo Chine ñi nga xam ne ñoom ñu ngi à plus de pour cent ak waa Corée Sénégal moom mooy troisième pays avec plus de pour cent kon dafa nekk liggéey boo xamante dafa am solo waaye duñ ko tay di

merci tout le temps et à chaque fois parce que boo xoolee plateau médical bu États-Unis ni mu ëppee suñu bos euh, doole du ndànk c'est des milliers d'années euh, de de d'années lumière mais on parvient quand même à faire des résultats extraordinaires là j'aimerais en demander l'avis de de de Red Chef Cheikh Diaby suñu suñu suñu fajkat yi ay jàmbaar lañu ils sont extraordinaires ces gens-là. gis nga euh, Pape Sy wax ji wax wax ju solo moi je crois que le Sénégal n'a rien à envier quand même aux autres pays peut-être sur le plan comme ni nga koy waxee nii le plateau technique euh, bon ñoom ñoo raw fuuf mais boo xoolee par exemple le cas de la France xoolal Emmanuel Macron il va s'adresser donc aux Français ce soir mais avant cela Édouard Philippe le premier ministre français dafa dajeek l'opposition parlementaire pour waxtaan ak ñoom alors que Pape le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 144 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 10 cas contacts suivis par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. Sept patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 291 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 178 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons en ce moment 110 patients sous traitement dans nos, dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ma defal leen situation bu bés bi tey euh, altine fukki fan ak ñett ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def tey si téeméer ak juróom-ñeent fukk test yu ñu def fukk ak benn ñoo ñëw nekk positif bond ak ñoom ñoo am jàngoro yi muy fukki cas yoo xamante ne cas contact lañ doon suivre si suñuy service ak benn kaa boo xamante ne transmission communautaire ñu yëgal leen tam ne tey juróom-ñaari patient déclaré nañ leen ne wér nañu tey dañ leen génn hôpital ci bés bi ñu leen wax tam ne patient yi nekk ci hôpital ñu leen di faj ñu ngi yëg tan bu baax bu ñu xaymaa ba mu démarré ba léegi ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ñu déclaré fii ci senegal ci ñaar téeméer ak benn yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci wér ñaar ñoo ci génn àdduna kenn ñu évacué ko bon dëng mën nañ jàppane ne téeméer ak fukki patient ñu ngi ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère de la santé de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu respecté bu baax ndigal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a xeex Covid 19 bi mu génn réew mi maa ngi leen di remercier bu baax. voilà donc une courbe en dents de comme ni ko Cheikh Diaby di faral di waxee yenn saay mu yëg yenn saay mu wàcc gis ngeen information yi nga xam ni ministre de la santé de l' action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr daan na koy joxe ci altine tey jii mu am nag 144 tests yoo xam ni euh, daan nañu koy euh, amal muy téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci test yooyu nag bu ñu ko amalee ba noppi gis nañu fukki nit ak benn ñoom ñoo daal di am jàngoro jooje di euh, coronavirus fukki yi nag ay cas yu ñu doon suivre mooy ñuy woowee ay cas kenn ki mu mel ni kon depuis démb ba léegi euh, cas communautaire yi ñu ngi euh, fësaat ndax démb am nañu benn tey ñu amaat euh, benn waaye nag ci li nga xamante ne moom moo jëm ci ñi ñuy faj ba ñu weer ñu génn l'hôpital tey toll nañ ci juróom-ñaar kon bu ñu defee li nga xam ni moom mooy xayma bi mun nañu wax ni le 2 mars ak léegi Sénégal am na lu toll ci 291 cas positif muy ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci 291 yooyu nag am na 178 mooy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ñoom daal nañuy wér ba génn l'hôpital kon ci bésu tey ji mën nañoo wax ni 110 ñoom ñoo nekk ci l'hôpitaux yi ñu leen faj muy téeméer ak fukk kon euh, Cheikh bi sànq yaa ngi woon ci dynamique bu am solo euh, nga boole ak chiffres rek ñu bàyyi la nga yeggali di la dig daje si kanam euh, ak say gan rawatina nag ci question yi nga xam ne internautes yi ak téléspectateurs yi dañ koy faral di ñu ko posé incha allah dañu leen ci interpeller tënkal leen ko kon euh, léegi-léegi jërëjëf Lassana ni nga ko waxee noonu la mais dinañ ci waat xam naa du ma ci xuusandi parce que Abdoulaye Diouf Sarr information yi mu joxe dafa am solo faw ñu commenté ko ak suñuy gan dama doon wax juste rek pour daane ne que Sénégal amul lu mu war a jàng ci lu bari ci ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew parce que Edouard Philippe loo xam ne def na ko ba Emmanuel Macron ci loolu la war a sukkandiku tey waxtaan ak askanu France ñun Sénégal def nañ ko ëpp ñaari semaine ak léegi ba ñu ngi ci waxtaan maak yow sax sànq ci hors antenne ba gis nga Côte d'Ivoire également ñu bëri ñu ngi rafetlu ñi nga xam ne président Macky Sall ak toute l'opposition sénégalaise les acteurs politiques sax laay wax toute la communauté sénégalaise tous les euh, acteurs sax avec un grand A laay wax aussi au Sénégal toog nañu waxtaan ak njiiti réew euh, li nga xamante ne mooy les divergences politiques aller vers l'essentiel parce que fu mu toll nii l'essentiel c'est quoi c'est la lutte contre le Covid-19 bouter vraiment cette pandémie hors de notre vue c'est très important jaajëf Lassana dinañ ci ñëwaat ak yeneen aspect commentaire yoo euh, na solo yi ma leen di nuyu di leen gërëm di di leen wax rek sama naataango Moussa Moussa Sène dina teew tuuti ci kanam am ay xat-xat yu ko téye tey nag ñu fas yéene ànd ak en attendant waxtaan bi euh, kii nga xam ne moom moo di Amadou ñas di médecin interne nekk euh, chef de service fële ci hôpital de Pikine ñoo fas yéene ànd ci waxtaan bi ànd ak tamit kii di Fatou Diagne directrice de l' équité sociale euh, fële ci ministère du développement communautaire de l' sociale et territoriale. kon nag tey mbokk yi ni ngeen ko xamee moom moo di chiffres yi faw ñu taxaw ci tuuti ndax Abdoulaye Diouf Sarr dégg nga dégg yi nga xam ne yëkkati na ko te sama naataango laa sana jot tey ñëw tuuti waaye man damay dem un peu di quand même bon gis ngeen quand même cas importé léegi amatul euh, kooku depuis un certain temps déggu leen ko waaye yéen a ngi dégg les cas contacts ak les cas communautaires fan yi passé cas communautaires yi taxawoon na tuuti waaye li ko dali samedi ba léegi bés bu yàlla euh, def ñu dégg cas communautaire lu mu bon bon daa ci dégg benn ndax samedi am na benn cas communautaire bu ñu déggoon gannaaw 12 cas contact yu ñu xam ne jotoon nañ ko enregistré samedi dimanche ñu jotoon enregistré deux cas benn bi cas contact la benn bi cas communautaire la tey aussi dégg ngeen également 11 sont revenus positifs sur 144 tests yu ñu def mu di 11 euh, mu di 11 maanaam 10 euh, cas contact ak benn cas communautaire donc bu ñu xaymaa def le total ci cas communautaire yi euh, mun nañ wax ne bon total bi yegg na ci 23 mais on dit pas que moom moo nekk. Euh, ci cas communautaire parce que diggante bi aussi am na ñoo xamante ne wër nañu aussi mais on di euh, la totalité le global moo tax aussi baax na mbokk yi euh, ñu analyser chiffres yi comprendre ko bu baax looloo tax te ñu woo ay borom xam-xam rawatina ki nga xamante ne moo di Amadou Niass yéen ñi nga xamante ne tamit bu ngeen bokk ci waxtaan bi mun ngeen ñu woo via nos via donc WhatsApp les réseaux sociaux Lassana mu ngi foofu ngeen envoyé ay SMS moo xam ci euh, hashtag moo xam également ci WhatsApp moo xam ci Facebook moo xam ci yu bëree bëri mun ngeen ñu ci woo euh, pour participer ci émission bi yéen ñi nga xamante ne bëgg ngeen participer tamit ci euh, téléphone bi tamit mu ngi nii di wu ci seen télé seen écran mun ngeen ci woo jokkoog sunu gan yi ak laaj yi nga xam ne bëgg ngeen leen ko yeggee ñoom ñëpp ñu tontu leen ci laaj yi nga xam ne soxla ngeen ci ay réponses kon nag mbokk yi ngir bañ guddal wax ji dañuy jox sunu euh, télé euh, invité bu njëkk kàddu gi mu di le docteur Amadou ñas euh, docteur maa ngi lay ni maa ngi lay fay Diaby. ñu rafetlu kàddu gi bi baax ak invitation merci beaucoup de l' invitation vraiment rafetlu nañ ko am nañ yaakaar solo ci askan wi. jërëjëf ak laaj yi ñuy laaj ñu fexe ci tontu nu mu gënee. may wax rek ne mbokk téléspectateur yow yaay euh, chef de service chef de service nga fële ca hôpital de Pikine médecin interne nga kon am na laaj yu bari yoo xamante ne euh, mën ngeen ko laaj docteur dina ci ñëw ak yéen dinañ waxtaan ak moom ci cas communautaire yi daañu waxtaan ak moom ci confinement daañu waxtaan ak moom ci avancée nga xamante ne aussi gis nañ ko ci euh, yenn fe yenn maanaam xeetu dañ garab yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo yooyu yëpp daañu ci waxtaan moom incha allah rabi ci biir waxtaan ba tey ci sunu gan yi maa ngi ko doon développement communautaire l'équité sociale et territoriale soxna si maa ngi lay ñu lay gërëm di la sant bu baax. waaw kay ñu ngi sa teewaay dina am solo tey parce que dinañ waxtaan ci kaa communautaire yi bu baax. Mhm. bu nga xam ban liggéey ngeen di ci def. daañu waxtaan yi ci wàllum tamit euh, dund gi parce que gis nañ samdi samedi bi passé njiiti réew mi mhm. euh, joxe na ndigal. sax pour que dund bi commencé dem ci ci dëkk bi fi nga xam ne daal ñoom ñoo ko yellool euh, ngir bañ ay coow dana baax tamit ñu xam ana ñan ñoo ko yellool ak ñan ñoo ko yellool ak naka lañ koy defee loolu lépp am na solo parce que euh, am na tuuti yenn lënt lënt yoo xamante ne mu ngi commencé dugg ci bopp askan bi mhm. jërëjëf soxna si kon ma jox docteur ñu analyser d'abord la courbe épidémiologique c'est important docteur ban jàngat ngay def ci cadre euh, yi nga xamante ne ministre de la santé yëkkati Euh, mën naa wax ni bu ñu dégloo ministre bi ba pare gis nañ ni cas contact yi euh, ñu ngi fi ba léegi ndax ci onze euh, cent quarante quatre mhm. tests yi ñu def am nañ onze ñoo xam ne am nañ ko ci onze yooyu dix yi ay cas contact lañ benn bi cas communautaire c'est-à-dire que nii génn guñ ci phase communautaire bi te actuellement nii li nga xam ni moom mooy xeex bi ci phase communautaire bi lañ toll maanaam cas communautaire yi dañu war a fexe ba dootul amati te loolu mën nañ jàpp ni tamit bu ñu xoolee li ñu naan délai d'incubation maanaam fi ko fi nga koy amee ak fi muy feeñee mën nañu wax ñaari semaine ba ñett la kon saa yu ñu ama tàmbalee xeex maanaam saa yu ñu tàmbalee xeex pour mu ñu wane pour ñu gis nii li ñu doon def askan bi di ko def ci ñu sant leen ko ak nguur gi li mu doon def pour que mbir mi bañ a yokku d'habitude bu ñu toogee deux trois semaines la ñuy gis effet yi nga xam ni liggéey bi nga xam ne liggéeyoon nañ ko xeex ko pour am li ñu bëgg kon tey jii mën naa wax ni Sénégal bi ñuy doog a tàmbali ni ñu tàmbalee xeex bi moo tax ñu am lii tey mais mën nañ am lu ko gën bu fekkee ni askan bi fekk si na docteurs yi ci li ñu bëgg mooy fexe ba phase communautaire yi nga xam ne jot na am te moom lañ doon moytu pour mu am maanaam bañ a jaxasoo bañ a dem foo xam ni ñàkk na njëriñ fexe def les mesures individuelles bu fekkoon def nañ ko ci njëlbeen ba mun na am du ñu toll fii mais loolu ba léegi mooy li sax maanaam fexe respecté ko waat parce que moom mooy tax cas communautaire yi nga xam ne am na mu bañ a yokku te li jot am mu jot a feeñ après ñu génne ko ci biir population bi faj leen nga xam ne ay cas contact rek am loolu bu ñu ci saxee population bi jafe-jafe bi nga xam ni moom lañ yaakaar ne mën nañ ko am mën na ñàkk parce que kër docteur mi ngi def warugaram maanaam. ñu ngi testé ñu ngi faj nguur gi moyen yi li mu am mi ngi koy jox kër docteur beneen bi mooy population bi ci boppam li ñu leen laaj du ay moyens changement de comportement kese la changement de comportement boobu nag man mën naa wax ni sax li docteur yi di def ak li nguur gi di def lu mu lu koy oyofal mooy changer comportement yi te changer comportement yi ko tàmbali woon nañ ko mais saa yi ñu toogee fukki fan ak juróom la ñuy gën a xayma jëm kaw nii ah lañ leen waxoon kat ñu ngi koy def mu ngi génn ay résultat mhm. je pense que ni population bu ñu ko xamee noonu parce que léeg-léegi benn cas ci semaine bi ñaar ci ñaari fan ñetti fan dafay feeñal li nga xam ni amoon na te defu ñoruñu ko woon def mu am mu jural ñu li mais li tax ñu ne kat ñu ngi góorlu wala ñaari semaines yi passé effort yi ñuy def feeñ na donc une semaine deux semaines lañ koy gën a gisaat donc bu tax nit ñi découragé yaakaar ni ñi ngi def li leen war a def mais mi ngi am cas communautaire cest kii boobu il faut ñu xam ko nan lañ ko waxee population pour xam ni ñu xam ni nañu continuer ci li ñuy def mais continuer ci mooy tax cas communautaire yi ñu am bañ a feeñaat. parce que mën na feeñaat benn suba wala ginnaaw suba mais action yi ñuy gën a def gën ci farlu. dans deux trois semaines lay gën a feeñ. parce que cas communautaire docteur day waar la parce que am na ñu ne sax foofu la mbir mi gën a nekk ndax xamoo ko la wal xamoo ko wàll xamoo fu feebar bi jógee yow da nga tëb a tëb ne mun a rëll ci yow te fan yi passé dégg nga ajuma gouverneur Dakar Alassane Sall jël ay mesures drastiques am ñu ne sax fu mu toll nii euh, mbir mi doy na waar waar boo xamante ne il faut s'attendre à tout dans une semaine parce que cas communautaire yooyu kenn xamul si ça peut waaw loolu dëgg pas la sorte loolu dëgg la mais euh, li ngay ñàkk xam kii euh, c'est-à-dire ñàkk xam boobu yëpp nga wax am na loo xam ne xam nañ ko nan ngay def ba ñu bañ la wàll parce que loolu moo ci ëpp li nga xamul xamoo ko on sait xamoo fan la nekk moom ci boppam xamoo kan la koy wàll mais xam nga nan ngay def ba mu bañ laa wàll parce que ça c'est important parce que il faut pas que ñuy insister ci xamuñu ñu xamuñ mais am na lu ñu xam nag ngay def ba cas boobu nga xam ne mu ngi suñu biir xamoo fu mu nekk nag ngay def ba mu bañ la wàll parce que il faut que nit ñi revenir en arrière sur l' essentiel nan ngay def ba ñu bañ laa wàll maanaam jël see mesures individuelles bañ a dem parce que boo gisee may insister si loolu. Mhm. mooy xamuñu fu mu nekk mais xam nañ ñu ñuy def ba mu bañ ñoo wàll. ça c' important pour à chaque fois ñu koy revenir pour nit ñi xam ni yaa a une possibilité pour nga bañ a am feebar bi en en en respectant les mesures d' hygiène parce que amul leneen loo xam ni de premier barrière bi nga xam moo nekk suñu diggante pour feebar bañ ñu daal. mooy ñu le les du d'hygiène encore une fois on ale les moyens de le faire laajul xaalis len nag am na boo ne nit ki toogal sa kër bul dem bul dikk dafay jur beneen jafe-jafe jafe-jafe boobu nag moom docteur yi amuñ ci solution mooy naam loo dundee loo loolu gouvernement bi moo ngi ci def li mu mën mais il faut ñu xam ni solidarité moo ñu ci génne ak muñ le temps que affaire bi dañ mais cas communautaire moom bu la ci kenn nax li koy dindi mooy ñu respecter les mesures individuelles. gars yi wax ay gis naa gis nga masque voilà loolu tamit dëgg ñëpp ñëw ay masque ku nekk a ngi defar. waaw façon la. je pense que ni masque yi ak lu mu mënti doon rek takk masque déjà day fàttali nit ñi cas communautaire cest à nit ñi masque bi nga xam ne moom la euh, médecin yi di takk wala masque bi nga xam ne moom la ñuy defar fi localement bu ko nit takkee rek dina la fàttali ni coronavirus mi ngi sur place. donc dina la mën a dimbali nga fexe yow déjà fàttaliku li la tere woon bàyyi ko moytu ko donc man je je defe naa ni daal li may gën a de euh, dehors des mesures barrières yi ñuy wax euh, individuelles ak collectives mën nañ ñaax askan bi ku mën a takk masque nga takk ko waaw loolu tamit bokk na ci li nga xam ne dinañu dimbali pour que transmission bi gën wàññiku te mu bañ a am. ah parce que transmission bi dana waar juste balaa ma laa bàyyi docteur nga noppalu mais le jël ay mesures Euh, c'est parce que aussi la situation est un peu inquiétante wala bëggoo tiital askan bi. waaw situation bi inquiétante na déjà boo xoolee situation mondial rek te ñu ngi ci biir monde bi c'est inquiétante parce que même ñun bu ñu bu ñu ci génnee te ñeneen ñi génn ci mënuñu ci génn sël te ñu fexe ba yegg foofu ñoom ñu yegg te lii leen fa yeggale mooy sàggan ñoom parce que ñooñu ëpp ay moyens fop mais comportement yi nga xam ne ñoom la amoon te waruñu ko am moo leen yóbbu foofu donc on peut dire que la situation est dans la mesure où le respect maanaam respecté li ñu war a respecté kii yeggaguñ fa ñu mel ni ñu ne fukk la ñu war a def ñun ñëw yegg si juróom dese na lu bari loo xam ne moo ñuy permettre ñu ne ah y a de fortes chances que s'il y un cas communautaire bu daan wàll cinq dix personnes mën naa am kenn rek lay wàll wala du wàll kenn donc il va falloir qu'on insiste que ni gravité feebar bi mi ngi ci wàllante bu gaaw bi déjà wàllante bi dafa gaaw ñaareel ba cas grave am na ci ñi wàll ñoo xam ne certes ñeen ñi duñu feebar ñi nga xam ne dañu feebar ba nekk cas grave boo xoolee ci bi ñaari cas grave yi ñu ci amoon yëpp yàlla dogal na ñu wàcc liggéey. dëgg la te kooku donc war nañ fa bañ a yegg parce que cas grave yooyu lu mu gën a bari chance yi pour nga génn ci dafay jafe. Mm-hmm. donc il faut tout fair pour ñu bañ a am déjà ay cas tout faire pour ñu bañ a yegg si cas grave. parce que bañ a yegg si cas grave moom peut-être mën naa wax ni liggéey kër docteur la am na ci loo bëri loo xam ni moom donc je aussi les autorités sanitaires. gis liggéey bi ñuy def fexe ba vraiment prise en charge bi jaar yoon te yu bëri mën a bañ a am. Mhm. alors docteur encore une dernière question balaa maa jox euh, euh, madame Diagne kàddu gi mais euh, ñaata temps lañu war a mën a toggaat pour xam un peu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci xeex fee cas communautaire yi ñaata temps lañu mën a toogaat à peu waaw xam nga loolu pour nga xayma ko de façon. nee nga période d'incubation bi c'est 14 jours à. 20 jours 20 jours. xam nga euh, bu ñu nee par exemple tey jii tey am na ay cas yu am yu bees yu ñu yëgul diggante fii ak 20 jours lañ leen di mën a génne yi nga xam ne nekkoon nañ fi dañuy nekk ci biir déjà donc fexe ba lépp loo xam ne nii nduróon na ko ci askan bi kenn ku ko fii ñu fexe jël la expliqué la parce que loolu ñu dafa am importance xam nga dañ naan ku suspecté ni am na ko rek dañ naan la toogal sa kër wooteel parce que dañuy bañ nga disséminer ko ça aussi c'est important beneen bi bu xësee ba yegg ci hôpital ñu xam ko ñoom xam na nan leen war a def ba nga war a bañ ko tasaat ñaareel bi aussi mooy bu fekkee am nga ko te xamoo ko respecté mesure d'hygiène day tax mu bañ a tas kon bu ñu respecté loolu yëpp ñi nga xam jot nañ ko am fi mu nekk nii wala ñu nekk cas communautaire fii ak 20 maanaam 3 semaines dañ xam ndax liggéey bi ñuy liggéey maanaam mesures yi ñuy demandé nit ñi def ko day dafay gën a leer c'est-à-dire évaluation bi chaque 2 trois semaines daf ñuy permettre ñu xam li ñu jotoon def war nañ ko yokk. wala waruñu ko yokk maanaam ndax war nañ dem confinement wala waruñu dem confinement mhm. enfin entre guillemets parce que euh, boo gisee ñu ne graaw na mooy am na fa xam bu ñu fa yeggee dañuy dem confinement te mhm. confinement moom mënuñu ko sax attanuñu ko mais bu mënta ñàkk tamit bu baax dañ koy def waaw mhm. ah, bu ñuy dee xiif sax wala ñuy sonn tamit bu baax il faut ñu def ko parce que sinon lam ñuy jural mooy gën a metti fop la nga xam ni confinement moom la ñu jural. bu dee def na sa benn collègue docteur bi fi toogoon fii keroog damaa fàtte tur bi su ma juumulee c'est le docteur euh, ma xoolati bon fàtte naa tur bi enfin bref peut-être sama xel bu ci ñëwaatee ci kanam ci sama ci sama archive yi euh, dinaa la wax kan la ci mais hôpital de Pikine lay liggéeyee. ah professeur Lay la waaw kay. nee moom lu mu gis foofu c'est quasiment impossible pour que par exemple dans la banlieue ñu yóbbu leen confinement waaw dégg naa ko moi je salue même le professeur Leye au passage euh, je pense que ni euh, li mu naan confinement tropicalisé c'est déglu naa ko confinement tropicalisé maanaam il faut ñu adapté ko par rapport ak suñu réalité ndax déjà mën naa jàpp ni ñun askanu Sénégal mën naa wax ni sax nit ñi bu weesoo dem ngénte dem dëj dem kii daanaka nit ñi ils sont confinés li ci desoon mooy état d'urgence bi def nañ ko ba dox guddi bi wàññiku na donc li ci des li ñu leen li ci des moo gën a metti li leen xañ fi mu nekk nii donc yaakaar naa ni bu ñu comme ni mu wax rek ngay dox fulla dox farata bañ a dugg ci yenn kii bu ñu ci jàppee par rapport ak ni maladie bi di évoluer ñu respecter les mesures yokk ci comme ni mu ko waxee woon les masques dina tax ñu vraiment arriver rapidement à notre objectif mooy euh, daaneel euh, coronavirus bi fexe mu génn ci Sénégal génn ci àddina mais am na yaakaar ni ni nga xam ne moom lañ koy doxalee muy ministère muy autorité sanitaire yi même population bi je salue la population des na nag parce que boo déggee ñu ne am na ñu dem ci plage yi am na ñu dem fële loolu tamit man maa ngi ñaax boroom kër yi parce que aussi nit euh, kër day am kilifa. Mhm. day am kilifa ba pare dafay veiller su sa ci ay njabootam parce que normalement nit boo ko yilifee war nga ko xelal digal ko tere ko parce que loolu aussi c'est important ñu ñu ñu fàttali ko ñëpp euh, te mag mu nekk mag sa magum bopp nga xale yi la ñuy wax mais mag ñi je pense que nii ñu ci ëpp ñu ngi def li ñu war a def. li de des moom mooy jafe-jafe yi nga xam ni moom la laaj. jafe-jafe yooyu nag je pense que ni euh, kër docteur moom dëgg la faj la bëgg mais faj nit ki ba pare loraale ko entre guillemets ci yeneen ko fànn donc loolu la ñuy moytu maanaam fexe ba nit ki ñu dimbali ko vraiment dimbali ko ci toog bi mu toog fexe ba tamit jafe-jafe yi nga xam ni moom la ko mën a jural ci wér-gu-yaramam ñu éviter ko maanaam lu mel ne maa ngi koy wax fan yee passé am na ñoo xam ni. ñi ngi feebar corona dalu leen mais ñi ngi am ay jafe-jafe. Mhm. parce que tout simplement corona bi dem na ba occupé na hôpitaux yëpp. c'est ça loolu tamit yeneen jafe-jafe yoo xam ni ci ñi feebar da leen dal mais je pense que ni hôpitaux yi moom ils sont ouverts toujours tëjuñu seen bopp. Mhm. ku ñëw feebar dinañ la jël tollaguñ foo xam ni nit dina ñëw hôpital ñu bañ ko mën a jël parce que corona bi def ñu dépassé. Mhm. donc nit ñi jaruñuy tiit hôpital mesure yi nga xam ne moom ngay jël ba nit ki bañ a feebar ñu ngi ci hôpital yi. mais tamit euh, dem hôpital ci loo xam ni des fois boo respecté pyramide sanitaire bi def naa balaa ngay yegg hôpital wala yenn kii yu bëri nañ ko mën a régler foofu bu ko jaree tamit ñu mën ko parce que respect pyramide sanitaire bi aussi dina permettre yu bëri ñu ñu am ci solution par rapport ak malade yi nga xam ni wala ñi nga xam dañu am jafe-jafe faju ñu mën ko régler d'accord docteur dama lay bàyyi nga dallu tuuti le temps que may ñëwaat yow ci laaj yi ndax am na yu bëri jot nga koo junj jëm ci mesures yi ñu xam ne jël nañ ko tere nit ñi dem ci plage yi ndax booy daw di sport am na lu bëri loo xaman da nga koy soxla ci nooy yeeg yooyu yëpp donc am na distanciation boo xam ne war nañ ko mën a respecter pourquoi nit ñi war a mën a toog enfin bref laaj yi bëri na lool damay jox kàddu gi Fatou Diagne mi nga mooy euh, directrice de l'équité euh, soxna si euh, man dama bëggoon xam un peu yéen est-ce wala déet Euh, jërëjëf monsieur Dia bi cas communautaire yi ñoo ngi ciy liggéey ndaxte comme ni nga ko waxee situation bi toll na fi nga xam ni ñëpp dañ ci war dugal seen loxo parce que du waa kër docteur rek ñoom ñoo war a songu xeex bi wala les forces de défense wala ñeneen wala population bi si seen bopp sax ndaxte euh, comme ni ko docteur waxee léegi cas communautaire li koy andi problème de comportement la te problème de comportement nag li koy dindi li ci ëpp. sensibilisation la moo tax ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale ñoom dañoo contractualiser ak toutes les rajo communautaire fu ñu mënti nekk nag di fa def ay émissions ci seen langue ci kàllaama bi ñuy wax ci terroir boobu pour mën a sensibiliser nit ñi parce que def naa sensibilisation bi kese moom moo ci mën a génne ndaxte gis nga mesures yu ñu jël yaakaaroon ni fii ñu egg tey ci ay mesures yu ñu jël doon ñu fa won yegg. parce que tout simplement à un moment donné dañu constaté que ni dafa am laxisme te laxisme boobu moom moo ñu indil tey ay cas communautaire yoo xam ni xamuñu sax fan la soqe ko donc xamuñu fan la fan la jógee ba ñu mën a juguler foofu xamuñu itamit ñan la law ba laal ba ñu mën a topp ñooñu donc yooyu ay comportement la yoo xam ne xëj na nit ñi buñ koy def ay euh, euh, ñàkk xam mhm. moom mooy tax ñu ñu koy def moo tax duñu tàyyi ci sensibilisation bi loolu moo tax ministère du développement communautaire jóg comme moom lañ moom mooy toppatoo affaire communautaire ñu wax ni dañuy contractualiser ak toutes les rajo communautaires comme ça ñuy waxateeg nit ñi am ay émissions interactives nit ñi di poser seen ay questions ñu leen di wax lan moo leen di mën a aar aar seen njaboot mais aaraale askan bi yépp mhm. parce que comme ni ñu ko gisee feebar bi dafay law te law tamit dafa gaaw donc il li gouverneur di du dakaar jël ndaxte euh, en un moment donné gisoon na nit ñi bàyyi woon nañu dem xew ak ngénteeg yooyu mais man euh, ci sama koñ rek laa lay wax ni la am na ñoo xam ne dañu tàntewaatoon di defaat ay xew. mais ay ngénte ah donc ba ba dañ fa fekk mujjee jël euh, yaay ji ak papa ji yóbbu donc yooyu. vraiment def naa ni nit ñi mesuré guñu. ampleur bi nga xam ne tey jii te defe naa ni ñaanuñu yàlla fii yeneen pays yu toll ñu toll fa te Sénégal itamit dafa toll ci euh, benn moment bu crucial mhm. mooy que ni président de la République dafa jël ni dafay appuyer nit ñi te appui boobu bos buñ koy joxe itamit dafay fekk ñu ñu ñu aar nit ñi mettre leen dans les conditions yoo xam ne ñu mën a jot ci ndimbal googu te ñu am benn risque kenn du leen exposé benn risque moo tax ñu daal di ci processus de ciblage bi déjà ñuy wax nit ñi ni leen nañu toog parce que am na ay comité yu ñu teg te comité yooyu ñi fa nekk ñoo ñoom dëkk donc ku soxla xam nañ ko c'est pas la peine nit ñi di déplacé wu di dem di seeti ay préfet di seeti ay gouverneur di parce que ñooñu du ñooñu ñooy tànn comité bi nekk ci suuf moom mooy tànn te ñoom defe naa ni am nañu suffisament de critères yoo xam ne jox nañ leen ko pour ñu accompagner nit ñi ñi nga xam ni vraiment feebar bi impacté na leen. mais comité boobu kan moo leen kan kan moo leen choisir kan moo leen tànn comité boobu ci suuf ngay wax. comité local ñoom waaw ñoom naka lañ def ba taxawal seen bopp est-ce que comité boobu crédible na ba bañ coow. comité boobu crédible na parce que comité boobu. Hmm. moom moo tànnoon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci RNU bi tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo yeyoo bourse de sécurité familiale. ndaxte comité boobu da nga ciy gis délégué de quartier bi moom moo ko jiite nga gis ci représentante famille nga gis ci représentante jeunes yi nga gis ci société civile nga gis ci euh, bàjjenu gox yi nga gis ci ñun suñu ay relais ñi nga tuddee acteur porteur de dynamique communautaire mooy APDC yi nga gis ci bàyyi defal yàlla bi nga xam ni moom moo nekk ci quartier bi di def lu baax te keneen yëgu ko nga gis ci ñeneen ay ay parlementaire ay hauts conseillers ay euh, conseil économique et social ñëpp nekk ci def benn say di tànn mën a wax ni diw mii kat buñ ko jàppalee dina baax ak diw mii buñ ko jàppale dina baax gis ci tamit conseiller municipal bi nga xam ni maire bi moom moo koy délégué mu wàcc parce que je rappelle encore que ni euh, comité yi dafa nekk par par niveau mm-hmm. euh, au niveau de la région mm-hmm. yàlla comité régional dirigé par le gouverneur au niveau du département yàlla y comité départemental dirigé par le préfet il y a le, les comités d'arrondissement dirigés par les sous-préfets et il y a les comités communaux par les maires mais les comités communaux yi nga xam ne maire bi moom moo ko diriger maire bi dafay jël conseillers am yépp nag de quelque bord que ce soit mu din yóbbu leen ci quartier yi ñu représenté ko fa ndaxte ñoom ñooy saytu ba xam ndax quota bi ñu leen alloué respecté nañ ko mais également ndax ñi ñuy jël conforme na ak critères yi ñu définiroon ba jox leen ko pour tànneef bi nekk soxla nañ ci gaawaay mais également dañoo bëgg transparence mooy na leer parce que bu fekkente ni euh, ministre Mansour Faye dafa ne nañu commencé ci réunion bi c'est parce que bëggul ñu profitoo ñi nga xam ne dañ leen war a tànn te buñ leen laissé en rade feebar bi mën na am dina leen gaañ te di ñu dinañu verser dans la vulnérabilité te loolu la ñuy bañ. réunion bi mooy lan doo bi. mooy registre national unique. Hmm. registre national unique bi mooy moom mooy. registre national unique mooy RNU. Mhm. dañoo am ñoo xam ne dañ ci tànnoon ba vraiment te critères yi nga xam ne moom lañ leen tànne woon bokkul la critères yi ñu tànne ñi nga xam ne ñooy nekk hors registre. parce que ñu ñuy tànn hors registre contexte bi moo tax ñu leen tànn mais ñi nekkoon ci RNU bi ñoo ñu dañu bañ ñoon ñu verser dans la vulnérabilité c'était des personnes vulnérables ñu nekkoon dans le besoin ñu tànn ci ab sàq daan ñii kat dañ leen di accompagner di leen jox di leen jox bourse de sécurité familiale boo xam ne toll na ci juróomi junni par trimestre léegi ñooñu jàll nañu ñooñu son sont éligibles d'office ci la ñu bokk mais problème bi kay fi mu nekk mooy ñii nga xam ni dañ leen a war a tànn te tànn bi wala leer te tànn bi ñu taamu ci approche boo xam ni day boole ñëpp mais également ñëpp dañ ciy bokk ku si nekk am nga ci sa point de vue te da nga respecté sa quota bi nga xam ne jox nañ la ko. Mhm. léegi ma bëggoon xam un peu ñaata ñaata zone ñoo ci bokk bon ci ci par exemple ñu jël kaw Dakar exactement. Mhm. Mhm. yan zone ngeen ciblé ak yan critère ngeen ngeen ngeen sukkandiku pour wax ne ñii daal ndool mi fi bari na fi wala ñii dañu am problème. zone yëpp dañu ciblé amul benn commune boo xam ni mi ngi ci biir Sénégal te bokkuloo ci ciblage bi ciblage bi wax naa la RNU féete na boor. mais ñi nga xam ni hors RNU lañ mooy ñi nga xam ni seen liggéey euh, crise Covid 19 bi daf ko gàllankoor mooy ñi nga xam dañ daan jaay par guddi ñi nga xam ne dañuy dañuy euh, suñu maman yi nga xam ne dañuy nekk ci roq koñ bi daan jaay seen cere laalo wala seen fonde wala am restaurant bu ndaw di jaay ndambee ak kii yooyu par guddi te léegi xam nga ni 20 ku mu fekk si biti yaa yaa tooñ sa bopp. mais également ñi nga xam ni dañu leen impacté directement mooy ñi nga xam ne seen famille yi am na kenn ku feebar wala am na kenn jël nañ leen yóbbu leen en quarantaine ñu war leen assisté mais également am na ñi nga xam ni tamit moom ñi nga yox ñi nga xam ni ñoom ñoo tuddee les opérateurs les petits opérateurs économiques ñi nga xam ne dañu doon jaay di daw ci kii bi di jaay. bokk la marchand ambulant yi marchand ambulant yi ci lañu bokk. Euh, également dibitier yi. Ah, ñi nga xam dibiteri di amatul léegi dibiteri di amatul léegi parce que moom guddi la koy léegi donte yàpp guddi baaxul voilà c'est ça donc ñoom ñëpp dañ leen kii parce que ñoom ñëpp boo xoolee ñi nga dañuy daw dépense au jour le jour donc il faut que ñu jàppale leen pour suqali ni bañ leen ñu verser dans la vulnérabilité donc yooyu la yooyu mooy critères yi ñoom ñëpp am nañ ko mais également damay signaler que ni am na ministère bi dafa recruter ñi nga xam ne moom la ñu tuddee ay vérificateurs vérificateurs yi seen rôle moom mooy ñu vérifier la conformité des listes parce que soo xasee ba nekk ci liste RNU waratoo nekk ci liste bi te ñoom ñoo koy vérifier euh, tollale liste yi xool ba xam ndax kii dugaluñ ko ñaari yoon ndax kii dugaluñ ko ñetti yoon parce que tamit comme ñi ñu war a jox dañoo bëre parce que gis nga Sénégal bu nee joxe ku si nekk da nga daan man maa ci gën a yey mais comme am na ay critères te tamit li ñu war a joxe c'est pas élastique dañu koy tànn jiital ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a jiital mooy priorisation tekk ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war a teg. le nombre c'est toujours un million de ménages. c'est toujours un million de ménages dont les cinq 558 000 euh, sont dans le RNU et ñun li ñuy chercher mooy les 441 900 moom la ñuy trouver. ci yeneen. wax nga dëgg léegi dama bëggoon juste rek balaa maa jox laasana mu taataan nañu kàddu yi wala euh, laa yoo xam ne jot na ko taataan fële ca régie bi. Mm-hmm. sànq yaa ngi wax bàjjenu gox yi bàjjenu gox yi lan la ñuy liggéey exactement ci wàllum euh, transmission communautaire xeex bi foofu lan la ñu ciy liggéey est-ce que ñoom ñu ngi ciy liggéey sax. ñu ngi ciy liggéey ñoo ngi yaa ngi ciy liggéey. Mm. parce que bi ñu jëlee mesure bu mujj bi rek laay jël comme exemple mooy bi ñu jëlee mesure bi ni dañuy tëj marché pour deux jours ou trois après ñu tijjiwaat benn fan def naa ci biir semaine bi donc ñoom am nañ ci taxawaay bu baax parce que euh, dafa am ñoo xam dañ doon siisu ni ñoom lii buñ ko tëjee fan lañ jëm mais également fan nga jëm euh, defe naa ne balaa nga naan naam da fay nekk. ku amul wér-gu-yaram doo tala liggéey ñoom travail de proximité boobu ñoom ñoo ko doon def dem waxtaan ak marchand yi ak suñu APDC yi waxtaan ak ñoom pour wax leen ni leen liikat seen njariñ moom moo tax ñu di ko def maintenant comme ndimbal bi nag dafa war a gaaw. itamit duñ leen dig ni leen ñoom ñëpp ñi nga xam ni arrêté nañ leen arrêté nañu seen activité marchande daañ leen jox mais également daa daañu xam ni vraiment bu ñu leen tànnee seen comité comité locale bu leen tànnee ba wax leen kii moom d'office dañ leen di jox mais également nañu jiital comme li ma waxoon te problème comportement la mais il faut mu ànd ak muñ parce que lii duñ ñu du Sénégal rek la da la dal gis nañ li xew ailleurs yeneen mesures yu gën a drastique la ñu jël te nit ñi ñoo koy respecté kon bu ñu ko respecté defe naa ni mën na am fii balaay fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan mën na am dootuñu gisati cas communautaire te loolu c'est pour le bonheur de toute la population. d'accord madame Diagne ma bàyyi la nga dallu ma dem régie fekk fa Lassana euh, sama naataangoo bu fa nekk di ñuy taataanal yenn laaj yi Lassana ma bàyyi la kàddu gi xam un peu rek yan laaj nga jot a euh, taataan foofu pour yéegee ko sunu invité yi. voilà euh, Cheikh euh, avant question yi ma ñëw ci euh, alerte yi on nous a vraiment interpellé ci yenn mbir yoo xam ne ñu ngi xew ci yenn quartier bu euh, Dakar mais dañuy njëkk arrêté wu ci situation bi nga xam ne moom moom ci CNTS di centre national de transfusion sanguine gars nee na ñu ngi wax trop ci corona bi c'est très important mais foofu aussi day baax ñu defal leen benn plaidoyer ndax dañoo jànkonteel manque de bu métti métti kon Cheikh si tu peux porter le plaidoyer du CNTS am na ñu nekk ci hôpitaux yu soxla loolu traite amuñu ko li nga xamante ne mooy quartier bu ñuy woowee Parcelles Assainies fii nii ci Ndakaaru nee na ñett fan a ngi nii amuñu ndox te gars yi ñu ngi naan feebar gi lu mu gën a ragal mooy set te boo amul ndox nag day metti loolu pour nga set léegi nag bu ñëwee euh, ci euh, question yi dañu koy njëkkee ci euh, cas communautaire yi euh, cas communautaire yi am na ñu interpellé docteur ci cas contact yi ndax gis nañ cas contact yi dafa am fu ñu leen di dem defal leen test ñu ne soit négatif nañ soit positif nañ mais cas communautaire yi concrètement gars yi fan lañ leen di ba ñëw taxaw naan fii la am cas communautaire wala fee lañ ko amee beneen bi gis nañ àdduna bi yàgg na jànkonteel ak ay pandémie ay épidémie euh, bu ci mujj gisoon nañ fi Ebola ay jamono ñuy laaj docteur a natt ci li nga madame la directrice ci euh, distribution vivres yi yi ñu ngi dégg ni camions yi ñu ngi leen di convoyer mais concrètement kañ la mbir yi euh, di door ba askan wi mën a jot ci li nga xam ne euh, moom mooy ndund loole jugee ci kilifa yi xam naa Cheikh dama ko fi yemale yeneen laaj yi si kanam ñu dicté laat li leen ko. jaajëf Lassana kon ba ci kanam ak jàmm ma jox kàddu gi docteur moom dégg na dina indi ay ay laaj ci loolu docteur vous avez la parole. merci beaucoup Cheikh dégg naa ñuy laajte ci fan la cas yi di jóge Euh, cas communautaire déjà ci population bi lay jógee mais nan lañ koy gisee nit la koo xam ne déjà day présenter signes yi maanaam day wane melokaanu jàngoro bi ñu ñëw fekk na mu ngi biir Sénégal bokkul ak cas boo xam ne dañ ko importé woon maanaam dafa jóge bitim réew indaale ko mais kii fii la ko amee ci biir réew mi mais xamuñu ku ko jox mais li tax ñu ne diw am na ko dafa présenter signes yi maanaam feebar na dem na hôpital xool nañ ko questionné nañ ko laaj nañ ko fan la ko war a mën a jël gis ñu kenn koo xam ne amoon na ko mu jotoon am ak moom contact pour que ñu mën a wax ni moom mii fii la ko jëlee maanaam bu ñu xamul fan la ko jëlee rek ba day nekk cas moom ci boppam est-ce que je moom ci boppam bu ñu xamul fu mu fu ko jëlee rek day nekk day nekk ci biir ci biir nit ñi xëy feebar bi feeñ ci moom xamuñu fan la ko jëlee bokkul ak cas yi pour ma préciser yi nga xam ni day am koo xam ne dafa am feebar bi ñu xam ni moom mi am na ko ñu xool ñi mu amoon amoonal contact ñëpp ci diggante bi ñu ber leen toog ab diir def seen test bu ñu defee seen test bu dee cent la ñu ñu gis ni fukk ko ci am ñu ne ñooñu ay cas contact lañu parce que dañoo amoon contact ak ku ko am xam nañ fan fan lañ ko jëlee mais cas communautaire moom du caageen dañuy néew rek ni dañuy dem seeti ay cas communautaire Pikine wala ñu dem seeti ay cas communautaire fële déedéet mbir la moo xam day feeñ te li koy feeñal mooy signes ñi nga xam ne moom lay présenté te xalaat ko ci feebar bi ñu xam ni noonu lay demee du loo xam ni daal day ciblé maanaam du du du caagan xam nga léeg-léeg sax ñu xalaat ni pourquoi ñu génnee toujours pikin Pikine wala pourquoi mu génnee toujours bërëb sàngam non noonu mën na dëkk Pikine sax ci diggante bi mu bougé dem feneen fa la ko feebar bi feeñee ci moom bu boobaa foofu la ñu koy classé cas communautaire boo xam ne fële la ko gisee mais nag fan lañ ko ko wàlle xamuñu ko ak kan moo ko wàll xamuñu ko loolu moom mooy particularité wu cas communautaire mhm. moom mooy tax ñu am jafe-jafe pour après def traçabilité xool ñi nga xam ne ñëpp mën nañ ko wàll ñu mën leen a seppiwaat parce que jafe-jafe boobu la ñu am mhm. ñi mu amal contact déjà foog ñu seppi mais moom ka ko wàlloon xamuñu fan lañ koy gisee ji ba mën a xool moom ña mu amal contact mën a arrêté ba euh, nu progression maladie propagation bi quoi. te lu ci doy waar docteur mooy feebar bi mën na laa dugg ba génn ci yow te doo xam ne effectivement am nga feebar bi ba génn na ci yow te entre temps mën nga ko wàllaat ñeneen. loolu tamit lu ja lu jara lu jara lu jara waxtaanee la nit ñi ñu xam ni feebar bi euh, sur cent personnes mën na am soixante yi soixante dix mën na nekk si ñoom euh, du leen sonal du leen tëral ba après finalement ñu koy wàll nit ñi yooyu te am na si ñoo xam nii seen. wér-gu-yaram mayu leen bu leen walee ñu mën cee génn donc loolu tamit dafa jar a sóor mën a nekk sa maam mën a nekk sa frère boo xam ne dafa am daagu waale wala feebar boo xam ne moom la am mën nga ko wàll sax finalement yow mi nga xam ne yaa nekk ak moom wala yaa dëkk moom wala yaa dem seeti ko yaa ko lor entre guillemets quoi je donc loolu c'est important nit ñi xam ko Euh, beneen bi dégg naa am na benn question. bu ñu posé waaw waaw xam nga xam nga pandémie bi da ngay déglu des fois da gis dans les kii lii lu bees la maanaam ni mu ni mu grippe saisonnière di amee ñu xam ni un mois la deux mois mu pare ñu pare ci fi mu nekk nii maîtriser guñu ko parce que euh, ni coronavirus bindoo ak ni muy wàllee ak euh, durée bi muy am ci kii mënaguñu xam exactement ñaata temps lay am tant que pare mën nañu wax mën def mois deux mois dañu jël kaw Chine par exemple bu ñu jëlee kaw Chine sa façon de façon claire maîtriser nañu actuellement pandémie mais jeexagul nañu parce que xam nañ exactement ñi ko am ber nañ leen ñi ngi leen di faj presque jeex na donc mën nañu wax ni ñoom seen épidémie enfin bu dee ci dëkk la épidémie ñuy wax mais au moins au la Chine ils ont maîtrisé la en trois mois à woon ñu ngi ci ban mois avril donc euh, avril est-ce que yeneen dëkk yi même chose lay deme est-ce que dañuy adopté carrément mesures yi nga xam ne moom la parce que mesures yi jël kenn jëlagoo ko ci de façon kii nga xam ni ils ont vraiment les frontières jël toutes les mesures à tous les niveaux peut-être ñëpp jëluñu guñ ko à 100 pour ba pare nit ñi déggooguñ ci nga xam ban mesure la ñuy jël nga xam ni de façon unanime ñëpp ñoo bokk ni ñuy faje ñëpp ñoo bokk mesure yi ñuy jël mais je pense que ni li Chine def en 3 4 mois am naa yaakaar ni peut-être les gens feront moins parce que tout simplement euh, ñenn ñi peut-être pas moyen parce que dañuy yéex a tàmbali mesures yi war mais ñi ko teel a tàmbali peut-être du ñu yegg fi Chine yegg 4 mois yegg yooyu yaakaaruma. Hmm, wax nga dëgg wax nga dëgg alors docteur peut-être juste benn benn laaj bu ndaw rek euh, par rapport ak euh, cette cette pandémie aussi c'est important euh, est-ce que aujourd'hui Euh, par exemple on, on en parle de plus en plus ah peut-être c'est parce que raison pour laquelle laaj bi ma la bëggoon laaj ma xaw ko fàtte mais mais mais dinaa laaj par exemple beneen juste en attendant de retrouver l'autre question est-ce que aujourd'hui les pistes proposées par exemple pour essayer d'endiguer un peu la maladie comme par exemple la chloroquine comme par exemple euh, le traitement par plasma enfin bref il a beaucoup de solutions wala beaucoup de propositions est-ce que Euh, maanaam euh, on devrait peut-être pas quand même essayer d'aller vraiment vers l'application vraiment de toutes ces solutions temporaires qui sont trouvées quand même pour le moment essayer d'endiguer vraiment le plus rapidement possible la maladie. Euh, waaw je crois que actuellement nii bëri na ay classes thérapeutiques maanaam yu ñuy fajee chloroquine ci la bokk interféron alpha ci la bokk utilisation plasma ci la bokk am na sax ñuy wax récemment ivermectine bi nga xam ne moom la ñu doon fajee. Euh, benn feebar bu ñëw onchocercose maanaam la la cécité des rivières lañ koy wax dañuy actuellement nii def euh, bu chloroquine di wàccee charge virale bi en une semaine moom en 24 heures mën na ko wàccee donc tout ça c' est yoo xam ne existé na benn piste bu ci mënti doon li tax ñu mën ko kii mooy mu am efficacité mu am mooy d' effet secondaire et coût bi bañ a élevé trop parce que daf ci am importance chloroquine xam nañ ni coût bi élevé wul tey am na lu muy jariñ permettre na durée bi charge virale bi di nekk ci nit ki parce que charge virale virale bi euh, virus bi nga xam dafa dugg ci yaram nit ki yaramu nit ki nga xam ne amul doole ba mu fajoo moom mooy am jafe boo gisee am na ñoo xam ne amuñu benn problème pendant ñu feebar diggante 70 du ñu am problème du ñu xam sax ni feebaroon nañu du ñu ko yëg mais ñi nga xam ni seen doole bariwul chloroquine bi dafay bloquer multiplication bi ba nga xam ni li mu am si doole ak néew dina ko permettre en une semaine mu rejeter tout ce qui n'est pas tout ce qui est mën a wér parce que bu virus bi nekkatul sa yaram li mu ciy jur dootu ci nekk am na ci feebar faj yoo xam ni interféron plasma yooyu ça coûte des fois ça coûte un peu cher même bu fekkee ni mais doo ko mën a def à grande échelle parce que ñëpp amuñu possibilité def ko mais c'est des thérapies yoo xam ne ñu ngi koy utiliser dans dans des pays développés parce que des fois y a des cas lu ñuy wax les cas sévères les cas graves dina toll foo xam ni ñu fexe utiliser yooyu utiliser yooyu moo permettre nga gën a mën a am des résultats boo xoolee ba ci biir lii professeur Raoul doon wax maanaam xaar ba nit ki nekk cas grave nga koy doog a jox chloroquine alors que ni mën na ko dimbali balaa mu yegg cas kooku c'est loo xam ni c'est indéniable il faut ñu nangu ko ni ñi ñuy teel a jox chloroquine day permettre ñu bañ a yegg situation day permettre sax ñu wér wér bi maanaam du chloroquine da koy faj directement comme ni benn garab di ñëwee rey doomu jàngoro bi mais dafay dimbali yaramu nit kii ba nga xam ni euh, lafa nekkoon ci jàngoro wala jafe-jafe kër docteur dimbali ko le temps yaramam. génne virus bi donc bu fekkoon daf fekk mu am diabète am yeneen feebar yi nga xam ni euh, virus bi bu duggee ci moom da koy gàllankoor ba feebar yooyu yóbbu ko kër docteur loolu yëpp da koy gérer parce que boo xoolee ba ci biir bu ñu naan ñi ngi félicité docteurs yi parce que am ni bu ñu leen bàyyi woon ak virus bi kese kese kese kese kese seen yaram amul kattan amul doole bu leen permettre ñu mën ci génn. donc moo tax ñu leen teel a leen jox garab bi am ay résultats yu baax donc am na pàcc boo xam ni c'est sûr que ni docteurs yi ñu ngi koy def te moom moo permettre ñu am ay résultats ci cas yi nga xam ni. c' est confirmé que ñu ngi leen di suivre. loolu am na solo au niveau local ñi ngi koy gérer bu baax. au niveau mondial mooy comme ni ma la euh, garab moom euh, ndax mën na faj ndax amul effet secondaire ndax mën nañ koo jënd ba mën a faj nit ki parce que accessibilité bi finance yooyu yëpp dafay jouer mooy tax ñu ne kat bii garab nañ ko jël unanimement dina faj am na garab yu jar cent mille yu jar te feebar boobu boo ko jëlul doo wér. maa détail bu àddina bi yëpp ñoo amoon même problème am loo ko jëndee ji. donc loolu yëpp lu mat la mais am naa yaakaar ni euh, recherche fi mu tool parce que nit ñi taxawuñu les centres de recherche ñi ngi xool ñu ngi xool ñu ngi testé lu ñu mën testé mais yaakaar naa ni d'ici peu bu ñu amul vaccin parce que vaccin bi ça a amené beaucoup de polémique c'est vrai euh, nañu am garab yoo xam ni au moins dina mën a permettre avec les mesures yi ñuy jël ñi feebar ñu bañ a dem nekk ay cas grave parce que cas grave yi mooy dañuy soxla réanimation te y de réanimation non seulement dans les pays développés pour contenir la kii mais encore moins dans nos pays donc il faut tout faire pour éviter que ñu am ay cas graves te plus ñu am ay cas confirmés plus taux de cas graves yi augmenté donc je pense que ni c'est un truc global boo xam ni moom la ñuy mën a téye pour ni kat nii bu ñu ci jaaree Euh, teel cee jaar nag mooy permettre ñu bañ a yegg foo xam ni day ëpp loxo. mais lan lañ mën wax ci modèle de soin bu Sénégal parce que su ma jumalee selon les statistiques Sénégal moo jël le troisième au plan mondial qui arrive juste après donc euh, la Chine et la Corée je crois je plus exactement. oui suñu modèle de guérison quand même ça va. oui je pense que c'est ce qui se fait partout dans le monde moom la def à peu près aujourd'hui euh, mooy diagnostiquer tester. Mhm. xool tester ko mu am nga yóbbu ko ci bërëb ber ko commencé ko faj. Mhm. ñun euh, yeneen ñi bu ñu amee lu bari trop yeneen dëkk yi boo gisee mu disséminé fa te yegseegul suñu kii parce que fa la njëkkee te jëluñu woon ay mesures ñun on a appris sur les autres c'est-à-dire dañu xool ci yeneen dëkk yi lan lañ def moo tax on est parvenu à avoir un modèle boo xam ni dafa jël ci li ñu di def jël ci li ñu amoon parce que on a aussi une expérience sénégalaise il faut le reconnaître mais on a aussi une organisation boo xam ne moo ñu permettre ñu génn ci parce que information yi monde bi am ñëpp ñu am moom la ñëpp am. pourquoi ñun on est parvenu parce que on avait un système de santé quand boo xam ni am na. malgré les difficultés malgré les difficultés un système de santé pyramide sanitaire district tout. fi mu nekk nii boo bëggee am information bi gën a ndaw ci case de santé bu nekk Casamance mën nga ko remonter rapidement. ça c'est c'est c'est fondamental la la maîtrise de de l'information sanitaire au Sénégal quand il faut reconnaître que ni am nañ ci lu bari beneen bi moom aussi donc boo maîtriser information bu jógee ci suuf ba yéeg ci kaw pour nga wàccewaat ko ci suuf dafay yomb loolu ba pare on a de grands hôpitaux yoo xam ni de suivi parce que les maladies infectieuses bi nekk Sénégal euh, nu mu tuddee sax Fann euh, je pense que ni notoriété am kenn waxatu ko au mm. niveau international l'Institut Pasteur tout ça il y avait quand même une base qui nous permettait bu yëf yi yegsee ñu xool nan la ñuy adapté wu loolu moo ñu permettre peut-être le succès c'est-à-dire entre guillemets li ñu koy wax le succès et le succès tout ça c'est relatif il faut le relativiser on a peu de cas parce que on est très tôt dañu teel a jël suñu disposition on arrive à gérer ces cas-là parce que tout simplement on avait euh, les hommes qu'il faut c'est-à-dire les techniciens de santé yooyu nga xam ni ils capacité de prendre en charge aussi bien des loolu tamit bokk nañu li tax am un succès beneen bi aussi mooy l' accompagnement de façon générale l' état bi ñu def donc je pense que ni euh, si on est troisième au niveau mondial il euh, y a beaucoup de facteurs dañu teel a jóg dañu teel a euh, jël toutes les mesures vis-à-vis de la population et encore aussi la population a suivi entre guillemets mmh. la population a suivi benn moment c' était pas évident on a amené l' d'urgence pour pousser les gens à comprendre que ni et puis y a de grands hommes aussi aussi au Sénégal yoo xam ni ils ont montré la voie commencé dimbalante génne xaalis les gens sont euh, allés au et je pense que ni c'est ce qui fait aujourd'hui notre réussite c'est tout juste que le président aussi je pense ce qu'il a fait woo population bi woo nu mu tuddati les chefs religieux les chefs les euh, les politiciens jël affaire bi jébal ko de la santé ak ministère de l'intérieur donc ñu jouer la partition comme il faut et aussi les, les C'est ce qui nous a permis de, nous en, arriver là. Mais sincèrement, euh, c'est pas parce que les autres, nous sommes des, nous tout ça, on a, on a respecté les choses. C'est pas qu'on est plus intelligent que les autres, mm. mais c'est parce que tout simplement on a respecté ce qu'il fallait respecter, aussi bien sur le plan sanitaire, sur le plan euh, des comportements qu'on en est arrivé là quoi. d'accord alors ñu jox kàddu gi Fatou Diagne yow tamit euh, mhm. nga xam ne moom mooy. opération de distribution yi kañ ngeen kañ tàmbali na wala tàmbaleegul kañ la ci askan bi war a jot tout ça fan la mbir yi toll. <laughs> jërëjëf Cheikh euh, juste pour dalal seen xel. waaw pour wax leen ni leen président de la république euh, joxe na top départ bi premier camion yi dem nañu. Mhm. depuis barki démb. et euh, donc ñoo ngi toll ci phase acheminement des vivres. Mhm. vers les régions ñu njëkk ci région ci cinq régions périphériques. Mhm. ak du centre. muy maatam Ziguinchor Louga Diourbel ak Tamba. et donc euh, bu ñuy yóbbu ceeb bi la ñu njëkk yóbbu ndaxte ceeb bi booy xool tonnage ceeb bi def na deux fois tonnage yeneen vivres yi ci topp donc dañuy njëkk yóbbu ceeb bi bu ñu yóbbee ceeb ba pare ba stocké ko ci magasin CSA ak euh, caserne yi ñu soog a nag daal di préparer kit yi pour mën a joxe distribution bi maintenant pour revenir tout de suite ci euh, li li li seen inquiétude mooy par rapport ak feebar bi nan la ñuy def ba distribution bi àgg ci population yi mooy dañ cee lëkkalool ak force de défense yi ak de sécurité mhm. muy armée ak waa gendarmerie ñoo xam ne accompagné nañu ministère bi pour que ci point yooyu nga xam ni fa la ñu stocké vivres yi ba yeneen point yi nga xam ne c'est des points secondaires mais rapprocher le plus des population mooy lu mu gën a jege population bi ñu xeeb am na yoo xam ne sax dem nañ ba wax ni ni dañuy defar ay tentes pour def fa pour gën a mën a jege population bi. mais ce que tentes yi ko defee aussi du doon occasion nit ñi dajaloo foofu et c'est un peu dangereux aussi te yéen ngi tere nit ñi dankaloo. déedéet nit que tentes yi c'est ah. pour les pour teg vivre yi ci ñi mu gën a jege mais nit ñi niñ leen di woowee dañ leen di woo par compte-gouttes parce que mesures yi nag il faut que tam ñu respecté ko. ndaxte mënuñu ne dañuy xeex benn feebar feebar feebar boo xam ne dafa gaaw a wàllante ba pare ñuy teg ay mesures yoo xam ne dafay ale dafay dem à l'encontre de li nga xam ne moom waa kër docteur moom la ñu joxe comme comme mesure comme mesure barrière mm-hmm. donc euh, dañ leen di indil ba ci seen wet pour jege parce que tamit comme nit ñi dañ leen wax ñi leen toog leen mënuñu leen wax tamit def leen ay déplacement yu gudd gudd pour ngeen ñëw jël ça ne sert plus à rien donc point yi c'est des points avancés nu mu gën a jege population bi gën a baax mais population bi nañu xam ne du ñu jógandoo dès l'instant que ni signifié nañ la ba jox la sa sa bon ni la yow di nga am muy tey muy suba xamal na yow di nga am parce que bon bi moom mooy matérialiser que ni yow mi dinga am moo tax dañuy multiplier les point de distribution pour nit ñi bañ a nekk di nekk en group wala di ñëwandoo en masse pour jël ci seen seen. ay peut-être euh, ça comme proposition wala folle comme proposition mais est-ce que du ngeen dem sax ba war a liggéey 24 heures sur 24. parce que aussi nit ku xiif nga bëgg ko xaaral xam nga. non ku xiif moom raxasu da koy da koy tardel. da ko jox ko lekk la bëgg. waaw hmm. moom kay buy yegsi moom. Hmm. am nañu ay équipe teg nañ ko. te armée bi dina ci jàpp bu baax a baax gendarmerie dina ci jàpp bu baax a baax s'il le faut sax dañuy wut ay oto yoo xam ne dañuy jël kit yi dem ba sa buntu kër ñu tegal la ko fa nga génn jël sa kit. mais affaire bi yeggagul kon kon kon li ñu doon def fii samedi lan la woon. dañ doon acheminer vivres yi pour mu dem. àggagul ba léegi fi mu war a yegg. an ah, kay àgg na première camion yegg nañu depuis kii mais rotation bi est continu ah. parce que li ñu war a yóbbu tamit dafa bari donc euh, rotation bi day continuer ba magasin yépp jot ci nombre de kit yi quota yi xam nañ ko bu një quota yépp matee ñu defar kit yi maintenant constituer ay points avancés de distribution. pour que nit ñi mën a. au plus tard askan bi kañ la war a mën a jot parce que kooku apparemment loolu la bëgg a xam au plus tard kañ la war a mën a jot seen i kit yooyu ngay wax noonu. ah xëy na semaine prochaine incha allah fii ba semaine prochaine dañuy toog di xaar. ah waaw il faut ñu toog xaar parce que li mu euh, te ñi nga xam ni impliqué nañ leen ñi war a leen impliqué impliqué nañ leen moom moo gën nga dem gaawantu affaire yi te li nga résultat bi nga bëggoon doo ko am loolu tamit beneen problème la moo tax dañuy coupler urgence mais également transparence ña nekk foofu di recevoir kii yi di recevoir euh, vivre yi il faut que ñoom yi tamit ñu may leen temps ñu defar seen PV defar kit yi kit yi tamit du lu tuuti parce que boo bëggee teg la teg ñaari saaku ceeb teg ci fukki litre diwlin teg ci ñaari grosse suukar teg ci euh, fukki kilo pat vermicelle wala wala macaroni wala leneen nga boole ko yépp bëgg ko def il faut nga def ko parce que vivre bi ni nga yóbboo ni nekkul par kit dañuy yóbbu ceeb après ñu yóbbu dëwlin après ñu yóbbu suukar après noonu lañ koy defee bu ñu yeggee ba sur place nag ci la ñuy constituer kit yi maintenant jàll nag ci phase finale bi mooy la distribution. Mhm. muy la distribution distribution bi tamit am mais mais également ci distribution il faudrait également insister quand même sur la sensibilisation ndax maa ngi la koy mhm. euh, surtout quand même rôle bi nga xamante ne jigéen ñi quand même war nañu ko ci jouer parce que cas communautaire quand même c' très important. pourquoi j'insiste euh, su ma si on fait le total euh, on dit les cas importés c' est 30 virgule 4 mhm. pour cent. les c'est quand même euh, les cas les plus dangereux parce que si on fait un peu le ratio à peu près benn cas communautaire ñaata a wàll à peu a 10 15 wala c'est trop au-delà ça peut ça ça au-delà parce qu'en moyenne on dit chaque personne peut euh, contaminer deux ou trois personnes mais il peut aller au-delà ça c'est la moyenne la par exemple bu fekkee ne admettons ñu quelqu'un qui circule pendant longtemps et pendant qui n'est pas malade va contaminer autant que possible C'est pourquoi on a demandé, parce que quand on la moyenne, eh, tu vas avoir quelqu'un qui va contaminer une seule personne, quelqu'un d'autre contaminer Tu vois, le, nouveau cas là, les gens disent qu'il a eu 18 contacts. C'est ça. Tu, tu, vois, donc oui, oui. ça dépasse de loin la, la, moyenne. Mais c'est en regroupant tout qu'on se dise que sur 20 cas, ils ont contaminé personnes, il y en a qu'un mmh. qui a mm-hmm. contaminé 25, l'autre a contaminé 3, l'autre cas contaminé un. Vous voyez un peu. C'est ça. faisant la moyenne qu'on arrive à trois ou Mais le fait que cette fois-ci, un cas contamine 18 personnes, la prochaine fois, il peut y avoir 5 ou 10 cas qui vont contaminer 18 personnes. Donc l'intérêt, l'intérêt, c'est de rappeler aux gens. Parce que quand on parle de moyenne, ce pas la même chose. Mhm. La moyenne, c'est le nombre de cas qu'une personne... Mais en divisant le nombre, généralement, ça Mhm. Ça peut aller au-delà de 3 ou ça peut aller jusqu'à 10, 15, ça dépend. Ça dépend de la situation, de son, euh, de son boulot, de son mhm. travail, nombre de personnes qui le soient. Mhm. Il y a beaucoup de facteurs, mais en moyenne, l'ensemble des gens qui ont eu à contaminer, si on fait la moyenne, on se retrouve entre 2, 3, 5 cas. c'est important alors euh, madame Diagne ma joxaat la kàddu gi parce que pourquoi peut docteur indi éclairage c'est important xam nga yéen da tabler sur un million de ménages. Mhm. ñaan ñu ko yàlla mara détaillé bu fekkee aussi vous n'insistez pas carrément sur euh, la sensibilisation pour que nit ñi respecte les normes d'hygiène et de sécurité et de distanciation mais imaginez également affaire bu exploser à une vitesse exponentielle vous n'aurez plus mhm. moo tax man wax oo nañ contractualiser sax ak rajo communautaire yi pour ñaaxaat nit ñi pour ñu respecter yi waa kër docteur joxe mesure yi waa kër docteur di joxe mais également ministère bi prévoir na sax en dehors de ce kit là alimentaire mu joxe waale ay euh, kit d'hygiène hmm, ça c'est important donc ay masque ay gel ay saabu madaax et tout ça ministère bi na ko joxe donc yooyu yëpp pour ñaax nit ñi la parce que nit ñi wax nañ ko sànq problème comportement la man docteur yaakaar naa ni sax cinq à 6 personnes yooyu nga wax ni cas contact communautaire yi mën nañ ko joxe dina ëpp loolu parce que man su ma la wàllee mhm. yow mën nga wàllaat ñeneen man su ma la wàllee wàll kii kii wàll kii wàll kii la donc ramification bi doo xam ba fan la jëm mhm. donc li ñuy wax rek naan euh, il faut que ñu mën leen circonscrire le plus tôt possible pour mën a juguler affaire bi loolu moom moo moom moo fi nekk te ñun defe naa ni ci loolu la ñu wër la la ñuy taxaw def taxaw seetlu loolu moom moo tax pour bañ nit ñi di envahir sax ñu daal di jël armée ak euh, gendarmerie lëkkaloo ak ñoom pour nit ñi mën a respecter li nga xam ni moom lañ leen di wax pour ñu jot ci seen vivre yi c'est important c'est important également docteur. Euh, maa ngi la doon laaj sànq benn laaj danaa dem ci laasana euh, tuuti parce que dafa am ay mbokku téléspectateurs yu may souligner yu am pagay ne bëgg nañu dugg dans donc ci biir émission mais apparemment dañ ne ils ont un petit blocage là au niveau du serveur maa ngi envoyé ça juste laasana message ne ko bu mu nee wax waa régie ñu xoolaat serveur bi parce que euh, ne nañ bëgg nañu dugg bokk ci waxtaan mais boobu ba léegi affaire bi jàllul daal dafa mel ni dafa bloqué docteur sànq maa la ko bëggoon laaj ba ma naan sax dama amoon tuuti genre fàtte. ju euh, jëm ci euh, li nga xam ne moom moo di euh, pandémie bi am ñu ne est-ce que quand même le fait que population bi la majorité dem ba nga xamante ne immunisé immuni am na immunis immunité en fait le fait de se de s'immuniser contre une maladie parce que immuniser bi moom moo am solo parce que yaram bi bu fekkee am na immunité boobu dina permettre à donc vraiment à l'organe mu pouvoir faire face donc à la maladie ñu ne est-ce que quand Euh, ban niveau la ñu mën a àgg à ce niveau pour ni ñu ne léegi il faut dire que l'alerte a été levée déconfinement mën na am euh, wala déet c'est jusqu'à quel niveau à peu près de la population à 60 pour cent wala 70 pour cent d'infection wala déet euh, non pas 60 cest parce que c'est des théories hein. oui des théories théories il y a gens ils disent ils laissent mu am benn immunité collective bañ bàyyi bu ñu demee ba 60 pour cent infectés. ñuy wér wér tu parce que l'organisme la preuve yaa ngi ma wax naan ma affaire yi boobu nga xam ni moom la ñuy utiliser mhm. quand on utilise d'une personne c'est parce que kooku dafa feebar ba wér mhm. am ay anticorps moom la ñuy pour faj keneen mhm. si on arrive à avoir une bonne partie de la population nga xam ni yàgg nañ foofu situation bi dafay inversé wu c'est-à-dire day nekk loo xam ni de façon comme yenn feebar yi ngaas benn yoon la lay dal bëri na feebar yu mel noonu ça c'est une c'est théorie mais en attendant ñu yegg foofu est-ce qu'on doit laisser ñi nga xam ni duñ ci génn ñuy infecté vous voyez un peu la bien sûr est xam ni duñ ci génn ñuy infecté on est obligé de protéger cette cette partie de la am na ñoo xam bu ñu infecté duñ ci génn y a de fortes chances que ni parce que seen yaram moo bindoo noonu wala ñu amaat beneen gàllam feebar boo xam moom la ñuy kiiyaat donc théorie boobu tout le monde n'est pas d'accord on préfère protéger ñi nga xam dañ leen war a protéger en attendant ñuy am vaccin en attendant ñuy jël garab yi. utiliser ko mais quant bon c'est on peut dire on peut dire comme ça mais quand bu fekkoon ni par exemple loolu moo fi sës loolu la ñuy def en matière de médecine toujours euh, euh, dañuy xool li nga xam ni moom moo gën hmm, du gaañ cherul accessible na ñu ñu ñu def ko donc théorie boobu c'est relative y a des gisoo yenn pays Angleterre au départ ils n'ont pas voulu. dañu ñëw nañ bàyyi mu dem comme comme on peut et puis au fur à mesure euh, la population va s'immuniser wala ñeneen. mais ba léegi Suède gis naa ñoom nangu ñu dem vers le confinement ñoom ils laissent donc les populations. comme ça waaw mais même bu ñu demul confinement ils respectent ils respectent ils respectent. au mieux les mesures d'hygiène ñu ngi koy respecté. même confinement bi sax c'est relatif dañuy dañuy def état d'urgence yenn pays nañu fexe nit ñi bañ a mais il respecte la distanciation donc chacun boo demee Hong Kong par exemple ñoom defuñu de defuñu dara dañoo xëy. parce qu'ils ont les moyens ils ont testé tout le monde presque autant que possible takkal di ñu ay masques et les gens circulent. Mhm. ñi feebar nga gis leen ber leen. finalement ils ont un taux très élevé ils sont 7 millions 7 000 habitants au kilomètre carré tu vois pour nga confiner ñoom c'est extrêmement difficile. donc ils ont préféré tout simplement jox ñëpp masque. mais moyens yi bokkul. boo ni say moyens bariwul da ngay xool li nga am ak say moyens naka nga koy utiliser pour am le meilleur résultat possible. Mm-hmm. si on pouvait tester autant que possible la preuve bu ñu ëssee bu ñaata cas euh, je vois que des fois dañuy am par exemple 100 cas à tester 100 200 cas ils ont été. Mhm. dañu leen mettoon en quarantaine après au bout d'un certain temps ñu tester leen quarantaine bi ça coûte cher. Mm. test bi c'est pas donné. Mm. c'est pas gratuit est-ce qu'il faut tester aussitôt ou bien attendre ñi nga xam ni montré nañu ay si ñu tester leen donc tout ça c'est pour économiser. voyez un peu quoi pas économiser mais c'est pour être beaucoup plus raisonnable gis-gis mais loolu les autorités ñoom xam nañu à près mën nañ xam xaw ma ñaata la kit bi di jar est-ce que am nañ assez de kit aussi boo utiliser kit yi pour tester ñoo xam ne mënoon na ñàkk nga wàññi ko bëgg a tester amatoo kit c'est c'est ñoom ñoo mën a apprécier vous voyez un peu ce que je veux dire <laughs> mën nga am 1000 kits les gens disent que ils peuvent en faire autant mais ça il faut mm-hmm. comme je suis pas sûr mais li wóor mooy li nga am ñoom ñoo mën a xayma exactement la capacité de test yooyu yëpp mais en retour aussi da nga koy utiliser à bon nu mu avec beaucoup plus de il faut être raisonnable quoi. il faut pas l'utiliser à tort et à travers mais nga tester ñi nga xam ni boo leen tester après c'est utile ñi nga xam ni jaruñu leen tester jaruñu leen tester mais bu ñu mënoon tester ñëpp c'est encore mieux. mais on est on pas arrivé on est on pas encore la mais comme li nga waxoon léegi le choix de l'immunité là de de de de kii c'est c'est on sait ni am na ñoo xam ne am nañ ko wér nañ am nañ sax dem na ñoo xam ne dañ ko waat. entre guillemets waxoon nañu ko Chine mais je je peux pas vérifier ça ñoo xam ne dañ ko amoon ba génn ñu testé wàll leen ñu positif ça a créé un peu est-ce que c'était des fake news ou pas mais ça a un peu benn peur am ko wër génnaat ñu ne amaat nga ko dañ la ko wàll wala feebar bay ñëwaat on ne sait pas mais ça ça n'a pas prospéré parce que déggaatuma dara lu ñu ci wax. mais ce qui est certain immunité boobu moom comme ñu ngi commencé utiliser plasma wu ñenn ñi pour traiter ça veut dire la maladie la personne peut développer des anticorps yoo xam ni. mën na ko aidé. wax nga dëgg wax nga dëgg mais docteur euh, yow ñan nga jàpp ne médecin denn nga ñoom ñooy les personnes les plus exposées parce que c'est important chaque fois ñu koy rappeler. ñan ñoo gën a exposé. ci feebar bi. population bi ñu xam ñoom ñooy les à risque waaw. par exemple xam nga comme une personne qui ne souffre d'aucune pathologie. Hmm. kooku boo xoolee peut-être jàpp naa risque mi muy pour mu contracter maladie wala mu sonal ko moo gën a moindre que koo xam ne am na benn pathologie chronique boo xam ne moo nekk ci moom. bien sûr bien bien Euh, les hypertendus am na nu ñu koy waxee ni ñooñu am na sax bu ñu dem ba ni am na ci traitement yoo xam ni dafay favoriser multiplication virus bi mu mën a fixé wu baax ci yaram nit ki ci yenn garabu hypertension yooyu entre guillemets wala ñu ne diabète parce que tout simplement immunité la ñu wax feebar bépp feebar boo xam ne dafay wàññi immunité maanaam défense su nit ki bu ko virus bi fekkee ci yaram bi ñu nekkandoo fa kooku day dimbali virus bi par principe quoi c'est comme ça qu'il faut le comprendre mhm. feebar yooyu nag mu bëri na ah si la bokk am na yeneen feebar yoo xam ne aussi dafay wàññi immunité nit ki hmm? immunité moom mooy moyen de défense am lu ko wàññi rek coronavirus bu ñëwee de ko mën na la yóbbu par rapport mën na dimbali feebar ba ba nga xam ne day aggravé wu donc c'est des nu ñu ko tuddee sax euh, am nañu ko tuddee euh, maanaam ay facteurs ay facteurs favorisant lañ mm-hmm. wala ay facteurs yoo xam ni dañuy dimbalante tout simplement loolu moo tax il faut ñu tenir compte ci euh, feebar bi ñu bañ ko wàll ñooñu Mm. te ñu ñu bañ di tax ñu bañ ko wàll ñooñu mooy ñu respecter les mesures d'hygiène pour revenir encore parce que inquiétude yi nga am moom la kër docteur am ñooñu mën nañ ne xayma mën nañ nekk cent mille Sénégal mën nañ nekk deux cent mille mën nañ nekk plus imaginer ñu wàll leen ñooñu ñëpp ñooñu nga xam ni feebar bi bu leen duggee day fekk si ñoom loo xam ne da koy aggraver mm-hmm. ñooñu bu ñu leen wàllee est-ce que ñun dañ leen mën a faj du ñu am sax fu ñu leen dugal hmm? xoo xoolo doy na waar wala bu baax donc il faut ñu fexe ba ñooñu bañ a feebar il faut ñu fexe même bu ñu amoon lu ne gàññ sax ñooñu war nañ leen protéger ñu bañ a feebar te li leen proposé bi njëkk moom mooy population bi ci boppam ñu suñu bopp ñooy war a njëkk protéger suñu bopp il faut ñu fexe respecter mesures yi pour bañ a wàll koo xam ni boo ko wàllee da koy lor yow am nga doole boo xam ni bu la bu nekk seera mooy li ngay wax léegi du la tëral parce que ndaw nga parce que nekk ndaw taxul aussi sa yaram dëgër forcément. c'est vrai pas forcément non pas parce que mën na am feebar yoo xam ne da nga koy judduwaale yii da lay dab. Hmm? boo xoolee ba si biir xoola ñi fi am insuffisance rénale yi fi nekk Sénégal. c'est ça ñoom ñëpp c'est des problèmes. Hmm? te pourtant war nañ ko ne di leen faj di leen jàppale. Hmm. am na ñeneen tamit ñu fi nekk ñoo xam ne tamit war nañ leen jàppale donc il faut que les gens soient le moins égoïste possible man daluma dalul ku ma xam. donc c'est c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. parce que gis nañu également statistiques yi day wane souvent comme ce des mm-hmm. personnes qui ont à partir de 60 ans jëm kaw. ñoom lay gën a sonal daal surtout quand même. waaw ñoom lay gën a sonal dans la mesure où boo xoolee ba ci biir maladie chronique yi. Mm. si ñoom lay nekk quand di dit chronique mooy lu yàgg si nit ki. donc mm. ñoom yàgg nañ fi donc ñoom ñoo koy attrapé ñu si ñoom lay développé. beneen bi mooy aussi euh, ay mag lañu ñenn ñi y a le tabagisme qui joue. Mm-hmm. ñenn ñi ils ont beaucoup fumé ñenn ñi ils ont des ngi fii. diabète ngi fi yeneen feebar feebar yoo xam ne ñu ngi fi mais am naa yaakaar ni bu ñu fexee ba protéger ñooñu. am na dëkk yoo xam ne sax dañoo confiner seen mag ñoom. je pense bien bu ma fàtte am na ah, dëkk boo xam ne ñoom dañoo jël mag ñi rek berle. wax loolu parce que bëgguñu ku leen ku leen ah, ñu si ñu ne est ñi bàyyi xale yi quoi am na ñuy wax loolu enfin bref dinaa dégg lu nekk. mais Sénégal mag ñi déjà ils sont confinés duñu génn kër yi. daanaka bu ñu demul ngénte demuñu takk demuñu kii. Mm. bu dee liggéeyoo damit mais c'est pas tellement sûr parce que ndaw gi mën na génn attraper ko foofu fekk mag baa ngi toog ci biir kër gi moom tam mu indil ko ko moo tax wóorul aussi euh, c'est pas une stratégie man dama ko xool analyser ko bu baax ma ne mais est-ce que bii ñu koy wax est-ce qu'ils ont bien réfléchi également à parce que euh, dinaa ñëwaat ak yow docteur dama bëgg ñu dem fekki Lassana à la à la régie euh, moom tamit mu jot ñu taataanal laaj yi nga xam ne euh, parce que le temps file ah heure bi dafa gaaw jot na ko taataan comme ça bu ñu tontoo après ci kanam tuuti dans 20 25 minutes ma demaat ak moom pour un dernier round-up après ñu yëkkati jotaay bi Lassana l'antenne est à vous. merci beaucoup euh, Cheikh dañuy arrêté wu ci euh, détails yu chiffres yi nga xam ne euh, ministre de la santé joxe na ko sànq ndax li ñu koy def bariwul mais c'est important ça nous permettra de savoir la gravité des cas communautaires du ñàkk après docteur dina ko commenté ci 11 cas positifs yi ñu am tey Cheikh juróom ñaari yi Louga la ñu la ñu la ñu bawoo benn bi jugee Dakar Sud Dakar Sud nag mooy sunu côté plateau Médina ak li ko wër benn bi Géejawaay la jugee beneen bi jugee Yëmbal beneen bi jugee Goudiri kon nag jàngat bi mooy boo xoolee Louga juróom-ñaar yi jugee tey Euh, buñ ko xaymawee am na ñaar fukki ak juróom te loolu yëpp benn nit moom moo ko fa yóbbu te nit kooku cas communautaire la woon loolu encore une fois de plus pour attirer l'attention des Sénégalais sur la gravité de cette maladie là et surtout sur la gravité des cas communautaires ndax benn rek boo ko ci amee mën na la andil plus de cent cas yoo xamante ne day euh, positif kon du ñàkk euh, loolee docteur dina ko commenter léegi nag bu ñu ñëwee ci question yi am na kuy laajte ba xam cas communautaire mën nañ koo méngale ak porteur sain ndax porteur sain day am feebar bi ni am na feebar bi ndax mën nañ wax ni différence am na ci euh, ñaari euh, cas yooyu lu jëm nag ci li nga xamante ne moom mooy distribution de vivres yi am na sénégalais yu ne dañuy dégg ñu naan première tranche ak deuxième tranche euh, lu tax rek defuñu lépp benn yoon ndax euh, ndimbal li daanaka ñëpp a ko soxla donc mu nekk question boo xamante ne gars yi ñu ngi ciy interpeller la directrice de l'équité sociale ci alerte yi nag Cheikh bari na loolu waaye nag dañu ciy tànn benn si kanam bu fekkee temps bi euh, permettre na ko ñu ñëwaat ci yeneen yi am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk HLM ñu ñuy interpeller ci seen situation marché bi nee nañ maire bi da ko bëgg ubbi marché boobu ñëpp xam nañ ni day drainer du kenn désinfecté wul marché bi nee nañ nag dañoo bëgg kilifa yi wax ci ndax mbir moomee tant que kon kenn désinfecté wu ko mun naa constituer un danger pour la population des HLM ñu bëggoon kon ngeen waxal leen seen plaidoyer boobu Cheikh ma yemale ko fi ba si kanam incha allah bu ko temps bi motewee ñu ñëwaat ci yeneen interpellation yi. bien sûr la seen dinaa yéen te yow pour le dernier comme on dit euh, nag moom coow li bari na fa lool ndax nee nañu maire dafa ibbi marché bi te askan bi nee na bëggul ñu marché bi. ndax marché bi kenn pompé wu ko doy na waar daal mais daal damay bàyyi docteur mi nga xam ne xamam dafa màcc ci loolu moom dinañu wax daal lan mooy danger bi foofu wala déet est-ce que am na danger wala amul danger docteur ma dugg ak yow ci laaj après su ma paree ma jox euh, madame Diagne moom tamit. Euh, euh, Cheikh bon mën naa wax ni marché moom. Hmm. mesures yi nga xam moom la ñu bëgg mesures collective yi te jafe nañu am ko ci marché c'est presque impossible mais terewul aussi nit ñi foog ñu dem ravitailler wu problème bi mooy nee nañ marché HLM ay tissu lay jaay dégg naa sànq di ko wax yoo xam ni mën na ñàkk mën na xaar mais man yaakaar naa ni euh, autorités yi dégg nañu seen li ñu jàmbat autorités yi dégg nañu ko maire bi aussi je pense que nii il est entre l'enclume et le marteau je pense que bu ñu waxtaanee seen biir normalement war nañ mut sul déjà les sànq dañu wax nañ ko tëj léegi nee nañ dañ ko pomper balaa ñuy ubbiwaat donc tout ça je pense que ni côté population def nañ un pas en avant quoi mm. Mm. donc peut-être avec les autorités ils peuvent trouver une solution peut-être pomper marché bi def des point de propreté yu gën a bari ci marché bi balaa ngay dugg nga nettoyer wu wut ay portes yoo xam fa nit ñi jaar fa la ñuy génn organiser waat dugg beeg génn bi mm-hmm. peut-être on peut avoir une solution boo xam ni ñoom ñoo koy bokk mm-hmm. donc lépp mooy du fi amee te doo indi solution aussi wala dina fi am par force te du ma jël benn mesure de précaution peut-être looloo tax jubóowuñu ko. Abdou Karim Fofana war na fa dem parce que fan yëpp gis naa muy wër ci marché yi monsieur le ministre moom war na dem foofu dem mu xool exactement ce qu'il en est euh, sur place euh, quelle est la situation qui prévaut sur place et dina permettre aussi euh, mu gën a ñu population mu gën a édifier aussi ce qui se passe là-bas. c'est important mais fu mu toll lépp loo xam ne daal vraiment dafay dajale nit vraiment nañu ci dimbale parce que toogaay bi métti na ndax ñi nga xam dañu am ay activités nu waxuma la sax bitim réew mais hors de Ndakaaru rek. mais mais docteur c'est un problème mu leer na da toog ci ba pas sortir benn circonscription ngay wër comme ça là comme lu ma xamul mais loolu day na waar kon nit ñi aussi nañu ci dimbale ñu war a toog toog ñu vraiment ñu amul farata nañu toog xam nga sànq yaa ngi koy wax euh, docteur dañuy dugg ci laaj parce que lép ci laaj yi la jëm mm-hmm. euh, fële ci nga xam ne mooy géejiwaay ndax gis naa ci week-end bi aussi ay ay ay xale di doo dàqee alkaati yeeg yooyu yooyu baaxul parce que non seulement kiy daw def sport su ma jumalee da ngay soxla beaucoup plus d' oxygène. Mhm. kon da ngay nooy nooy bu am solo. kon lu mu bon bon am na benn distanciation ba war nañ ko mën a respecté xoolal France juste pour bàyyi après yow tam nga commenté loolu euh, week bi passé xam nga dañ ne am na heure yoo xam ne dañu war a permettre nit ñi dem defi sport am na sax nu ñu koy woowetee fàtte naa sax ma ma blogueur xamatuma daal benn tur bu ñu koy woowee daal mais en tout cas sport la daal. Mhm. yooyu ñu permettre nit ñi def sport. ça a créé benn benn risque terrible boo xamante ñenn dañ ciy profité sa di def naka sudul noonu xam nga loolu dem doy na waar mbir ay mbir yi doy waar a ngi noonu docteur. tout à fait euh, xam nga xam nga euh, les fois nit ñi dañuy foog nii boo amee xam-xam rek tu as une wala boo amee une bonne ñaar yi bokkuñu quoi am na loo xam problème d' la. da nga gis ku jàng am xam-xam yoo xam nga France bëri nañu jàng ak yooyu terewul bi ñu ubbee les gens sont allés trop mm. loin. mbir mi je pense que problème d' la. des fois da ciy jouer euh, nit boo boo nekk boo amee kilifa parce que wax naa la ko léegi sànq ni la kër gu nekk je pense que am na kilifa bu fa nekk wala am na ñoo xam ne ñoom la ñuy il faut que ñooñu aussi ñu jàppale nguur gi waxtaan ak seen njaboot di wax ak ñoom di leen rappeler parce que télé yi li ñu war def ñu ngi koy def rajo yi ñu ngi war a def parce que kenn du ne xamoo coronavirus kenn du ne xamoon ni mi ngi wàll kenn du ne xamoon ni mi ngi rey. ah tey de ñu ngi loolu loolu loolu ñëpp a ngi toog seen kër yi. donc weekend ñun ñu ngi donc loolu moo des nit ñi fexe def li ñu leen sant. Mhm. def li nga xam moo gën ci ñoom pourquoi defuñu ko seen une question est-ce que mauvaise mauvaise volonté la est-ce que manque d'éducation la est-ce que. Euh, répression bee doyul entre guillemets je ne suis pas d'accord je pense que il faut toujours aller te j'ai vu policiers yi ils sont beaucoup plus mm-hmm. conciliants gis naa ni ñuy defee c'est important donc il faut que ñu gën a euh, xool nan la ñuy ñaaxaatee parce que jeunes yi actuellement peut-être mooy poser problème les jeunes parce que confinement bi si jeunes yi lay gën a métti ñi nga xam ne tàmmu ñu toog dañuy dem kii ak mais il faut le trouver peut-être des moyens mm-hmm. il faut nan la ñuy def ba nga xam ne dañ leen occuper euh, sensibiliser leen mais loolu c'est ce n'est jamais gagné il faut rien négliger mais il faut continuer à à, à aller dans le même sens parce que li nga bëgg ni actuellement comme solution nii nii nii nii pour loolu dañ complètement c'est presque impossible il va falloir qu'on continue tout ce qu'on faisait maanaam sensibiliser comme ni ko madame kii waxee insister dans la banlieue le problème il faut ñu sensibiliser parce que banlieue bu ñu deful ndànk gën a góorgóorlu moytu li nga xam ne moo koy indi bu jege fenn fi même bu ñu leen bëggee dimbali duñu ko mën mm-hmm. donc il faut continuer encore à sensibiliser je ne sais pas s'il faut chercher d'autres fii ñi ngi def man daal am naa yaakaar ni li ñu war a def yëpp def nañ ko mm-hmm. li ci des mooy nit ñi gën a euh, def benn euh, au niveau des quartiers peut-être beaucoup d'être beaucoup plus proche des gens est-ce que c'est pas au niveau des quartiers qu'il faut gis naa keroog ay oto yu romb ci quartier bi nit ñi di romb di wax nit ñi di dégg ñu ne sensibiliser ñu leen di wax tout ça c'est bien ah. c'est vrai tout ça c'est bien bu ñu xeeb dara quoi loo xam ni mën na tax nit ki au quotidien mu xam li ci des maa la koy wax sànq fexe nit ñi takk ay masques mën leen mën leen sensibiliser takk ay masques pour nit ñi xam ni loolu peut-être nañ ci génn. Euh, bu ñu ci yokkee masque yi confinement man moom laay bañ a dégg ñu ko pour le moment mais bu ñu changé fa lañ jëm. confinement métti na de. Mm. non bu ñu changé wul fa lañ jëm. Mm-hmm. il faut que les gens comprennent que ni boo gisee ñuy wax ba nii di waxante di déglante c'est parce que la situation est encore plus ou moins mais am na foo xam fu ñuy yegg les décision dañ koy jël par rapport ak cas par cas ni lii la ñuy def lii la def lii la ñuy def donc population bi comme li nga wax rek euh, looleen leen naxan naxanteeg ñoom naxanteeg ñoom il faut nga insister xamal leen ni euh, li ñu war a def moom kenn du leen ko defal d'accord léegi docteur am na tam ku laaj ne ce que différence am na diggante cas communautaire ak porteur sain waaw porteur sain xam nga <coughs> porteur sain mooy ki nga xam ni feebar baa ngi ci moom mais feeñagul cas communautaire dañuy nit ki day jàmbat yëg dara ci yaramam mu doog a dem xam nga ki nga xam yëgagul ci yaram yaram dara du dem kër docteur. la donc mënul bokk ak porteur sain quoi entre guillemets porteur sain la woon avant muy nekk cas communautaire. Mhm. mën nañ koo xamee noonu mi ngi mel ni comme benn cas contact boo xam ne aussi euh, il est là bien important porteur sain la woon avant ñu xam ni cas confirmé la parce que feeñul woon ci moom. feebar bi mhm. mais Euh, porteur sain euh, cas communautaire lu ci feeñagul rek ba ñu kii ko. Mm-hmm. mën nañu wax ni lu laxatu ci nit ki la mu ngi dox ak moom di dem ak a ñëw. Mm-hmm. mais donte porteur sain bi mun na wàllaate comme ni ñu ko waxee. absolument absolument absolument parce que boo xësee ba nekk ci yow doomu jàngoro bi fii lay nekk. sphère mm-hmm. ORL boo sëqatee tufli jeeg yooyu da ciy dugg donc euh, moo tax ñu ñu wax ñu am benn distance. distance boobu loolu lay jariñ parce que ki mu nekk ci gorjam muy sëqat. wala kii du tisolee da koy tas. ci fi mu nekk. donc ñu préféré au minimum un mètre au minimum mu nekk un mètre diggante yow am na ñu wax sax naan bu sëqatee boo ko jegee un mètre. mën na la mën a yegg si yow. Mhm. donc tu vois donc. Euh, porteur sain bi. Mhm. Euh, mën nañu wax ni am na ci biir nit ñi. Mhm. mais xamuñu ko. cas communautaire mooy ki ñu gis te mu amoon ko te xamul ko fu ñu rawatina ñi nga xam dañuy tisoli te tisoli dafa am doole dafay condenser mbir mi li nga xam ne moo di docteur mais juste laaju laasana bu mujj mu ne dafa bëggoon aussi ñu commenter chiffres yi nañ ay cas communautaires yu bëri seet Géejuwaay am na euh, yëmbal am na euh, ak fu bëri daal naka nga mun a commenter. waaw ma ma ma ma moom c'est vrai que les les cas communautaires les inquiètent beaucoup. les inquiètent beaucoup mais euh, cas communautaires yooyu am Louga am ki bu ñu xoolee histoire nit ki ci boppam des fois dañ ko war a expliquer population bi. maanaam cas communautaire bi pas diw la wala diw ñu ne cas communautaire bi fii la jaar fii la jaar lii la def lii la def lii la def nii la loolu bu ñu ko expliquer nit ñi dinañ gën a comprendre de façon illustrative parce que man ci ci loolu laay wax surtout de façon illustrative parce que information bi ñu leen jox li am importance mooy ñu xam ni cas wax na ko léegi cas ko mën a dem ba 100 mhm. mais loolu yëpp mi ngi dépendre ci nit ki lan mooy activité c'est ça boo gisee ñu neen toog leen looloo tax parce que nit koo xam ne activité mën na xëy dem nu mu tudd sax dugg biir Sénégal génn ñëw Dakar wala biir Ndakaaru rek mu def ci au moins deux cent kilomètres wër ak ñi koy soxla ñi ñëw ci moom kooku bu ko amee te jëlul mesure bi mais deux cent personnes yi ñëw ci moom ci dix jours yi yëpp mais da leen koy wàll presque c'est ça le problème mais bu fekkee ne yow ñetti nit ngay recevoir par semaine ñetti nit nga koy wàll wala ñetti nit ci ngay dem ci ñoom esprit boobu lañu la ñu war a doxee moo tax toog bu fekkee ne yow ñetti nit ngay recevoir ci semaine bi ñetti nit nga koy wàll mais leneen li mooy boo ko wàllee ñett ñi te ñett ñi ñoo kenn ki moom dina gis 200 personnes. waaw c'est devient une chaîne. tu tu vois peu donc. chaîne la quoi mën nañu wax ni y une chaîne boo xam ni bu xasee ba genre boîte au la bu xasee ba démarrer rek. kenn du xam fan la yem. Mm-hmm. xam yow mën nga wax ni ñett ñi laa ko wàll mais ñett ñooñu wàll nga ko xam ni kenn koo xam ni moom mën na ko wàll 100 personnes. de de de fil on se retrouve avec 1000 euh, personnes li ñu doon dimbali sax mooy délai d'incubation bi gàtt lu mu gënoon gàtt ñu teel a feeñ ñu délai délai mais délai d'incubation bi dafa xaw gudd tuuti. Mhm. et ensuite ñi nga xam tout tout c'est pas en notre faveur. le fait que délai bi gudd trop mu am ko di dox ak moom c'est pas en notre faveur duñ ko teel gis le fait que nga am koo xam daf ko am te xamuñu ko te mi ngi dox di dem yoonam dara jotu ko c'est pas en faveur pour pour la euh, bonne prise enfin euh, maîtrise la situation. Mhm. ce qui fait que tout ce mooy nan ngay def ba bañ ko feeb mu la dal. Mhm. parce que il faut nit ñi xam nan ngay def ba di ko fàttaliku nan ngay def ba mu bañ laa dal. Mhm, c'est nan ngay def ba mu bañ laa dal c'est très simple. c'est important te laver les mains comme ni ñu ko waxee takk sa masque autant que possible jël sa distance ak nit ki jaru xeeb cest mhm. loolu li muy yomb yomb yomb yomb yomb nit ñi dañ ko xeeb ah, man j'ai l'impression que dañu xeeb li leen wax ils pensent que ni euh, donc ñoom yeneen i pexe la ñuy wut yu gën a yomb yu gën a simple. mais comme ni ñu wax rek nopp buy dégg moom bopp boppu am xam nopp buy dégg ci sax mais nit ñi de en fait du ñu dégg quoi. <laughs> c'est très important ñu bàyyi kàddu gi Fatou Diagne moom tamit directrice de l'équité sociale jot nañ ko interpellé ci ay laaj première tranche ak deuxième tranche yooyu yëpp daal nu mu demee noonu. dañu ko mm-hmm. leeral. Euh, en fait du sax ay tranche mais defe naa ne li gën a li gën a neex a dégg. Mm-hmm. mooy que ne registre bi nga xam ne pare na. Mm-hmm. boobu am nañu contact nit ñi fu ñu dëkk seen numéro téléphone. quartier ba ñu dëkk ak yépp ñu commencé ci ñooñu. moo gën a yomb ñuy toog di xaar ñi nga xam ne dañ leen war a recenser donc continuer lay doon mais il faut que ñu commencé fenn. te defe naa li gën a neex a dégg te gën a yanu maana mooy ñu commencé ñi nga xam ne inscrire nañ leen déjà am seen ay contact am seen lépp ci registre bi ñu commencé foofu en attendant que ñii tamit liggéey bi ñuy def ci ñoom mu pare loolu daal moom mooy moom mooy kii bi mais pas ay tranche nga xam dafay am taxaw. ñu kiiwaat defaat déedéet du ay tranche mais continuité la c'est-à-dire ci ñii la ñuy commencé terminer ci ñii. Hmm, kon amul amul jox ñii tey wala. déedéet loolu amul bu ñu xasee ba joxe rek dañuy joxe bu ñu xasee ba joxe ñëpp la ñu commencé joxe le temps ñuy pare ci waa RNU yi ñeneen ñi pare ñu ko ñu continuer ak ñoom. wax nga dëgg wax donc loolu la rek. Hmm. léegi ma bëggoon xam aussi euh, parce que aussi gis naa ne euh, ndimbal am na ci aussi quand même ci au niveau des collectivités locales ndax gis mm-hmm. naa ne collectivités yi tamit ñu ngi dugal seen loxo bu baax ci mbir mi et ça c'est important aussi quoi que l'on mm-hmm. puisse dire surtout dans ce geste de solidarité est-ce que yéen loolu quand même ndax gis naa ne ñu ngi leen di jàppale est-ce que dans ce cas est-ce que c'est bénéfique Euh, maanaam nit koo xamante ne mu ngi ci benn collectivité locale benn circonscription te gis nañ déjà mairie bi joxe na mhm. alors que am na ñoo xamante peut-être bénéficié wuñu ci lii ngeen di wax est du ngeen mën a gën a liggéey ñoom waaw loolu moom moo tax ñu teg comité communal bi parce que communes yi gis nañ commune yépp presque daj na Sénégal commune yëpp joxe nañ dégg naa Banda mu ne génne na 100 millions Alioune Ndoye génne na plus de 300 millions enfin oui day des quoi mais est-ce que par exemple mais gis nañu xaw na leen jàppale tuuti ndaxte xam nga li ngeen war a xam hmm. mooy daanu dajul suuf loo joxe joxe joxe dina am kenn ku nekk dans la besoin parce que tànn moom moo mel noonu boo tànnee di nga dugal ko waru woon dugg wala nga génn ko waroon dugg mooy les erreurs d'inclusion et les erreurs d'exclusion loolu nag pour ñu mën ko minimiser minimiser ko il faut que ñu croiser euh, ñi nga xam ni maire yi da koy joxe ñi nga xam ni état du Sénégal moo koy joxe ak ñi nga xam ni les partenaire techniques et financiers ak institutions yi ñoo koy joxe donc yooyu yëpp ndimbal la yoo xam ni jëmul fenn rul ci population yi maintenant li tax nag ñu responsabiliser maire yi ñu war ci am taxawaay bu am maanaa mooy que ni ñoom au moins ñu ñu jox xam nañ leen donc quand il s'agira de prioriser ñi nga xam ne joxu yoon nañu jëkke ci ñi nga xam ni amaguñu woon dara ñu jox leen te ñoom ñoo ko xam moo tax ñoom la ñuy waxaat ni leen nañu delluwaat ci comité locaux yi jël seen conseil yi bu dee ñoom mënuñoo taxaw ci comité locaux yépp ñu jël conseil bu nekk conseil municipal bu nekk te bañ a wax ni conseil municipal bii fii la bokk kii fii la bokk duñ ko yónnee wala lii laa donc nañ leen tas ñu dem ci quartier yi superviser xam ñi nga xam ne mairie bi joxoon nañ leen ñu prioriser ñu amagul dara. Mhm. parce que nag comme on dit rek mbir mi fépp lay méttee mais nag. Euh, am na ñoo xam ne ñoo gën a metti le am ñu ci topp am ñu ci toppaat nañu fexe ba respecter loolu prioriser parce que ñoom tamit lii ñu leen andil nii ci ñoom lay dellusiwaat parce que ñoom ñoo yore seen commune yore seen ay quartier bëgg ku leen falaat wala bëgg koo xam ne dafa leen di wan ginnaaw donc nu mu gën a rafete ci ñoom rek ñun ñu ànd ceeg ñoom ci liggéey boobu ak waa armée ak waa gendarmerie. léegi yéen ba ngeen defee seen xayma ak seen euh, kii nu ñu koy waxteeti waaye seen plan tout ça yéen yan zone ngeen gis ne ñoom ñooy zone yi gën a affecté par ndool mi ndool mi fan foofu fan la gën a affecté ci Sénégal. Euh, banlieue bi par exemple banlieue bi bu si mel na Grand Yoff Grand Yoff euh, on a beaucoup beaucoup beaucoup de ménage à appuyer. Mm parce que Grand Yoff gis nga leen ni ñu dëkkee. Mhm. donc dëkkuwaay bi dafa xat promiscuité bi te promiscuité bi xam nga moom luy favoriser. Euh, kii bi la euh, feebar bi la. Hmm. mais également euh, dafa bëri ay ay ñoo xam ne dañ doon def ay petit métier. dafa bëri ñuy def petit métier. Hmm. Grand Yoff c'est le Sénégal en miniature c'est Dakar en miniature donc bëri na ñoo xam ne war lañ leen fa jox moo tax it ñoom tànneef bi tamit ñoom ñoo ëppale ñi nga xam ne ñoom ci ñi ëpp ci région de Dakar en tout cas ñi ëpp. ñoo ngi maa ngi ñëw bu fekkee ne am nga chiffre yi peut-être le temps seet ko dama bëgg a jël juste kii ci ligne bi rek mu yeggee ñu laajam après ma ma joxaat la kàddu gi allo. allo. allo. allo bonjour kooku. Euh, Mamdi Diaw. baal ma dégg baax mu ne. Mamdi Mamdi Diaw Mamdi Diaw. ah Mamdi jaw ñu ngi lay nuyu euh, fooy wootee. Euh, maa ngi wootee HLM 5. HLM 5 waaw yéen de dégg naa am ngeen ay problème foofu de nu mu demee. bon Cheikh mu leen di remercier ah di remercier téléspectateurs bi yëpp. ñu ngi leen di bon vraiment HLM on a on a un problème. parce que actuellement adduna bi ñëpp xam nañu feebaru coronavirus bi ni mu fi tëddee. su su mairie des leen jëlee décision woon tëj marché bi du 4 au 12 pour désinfecter ko nettoyer ko. saa euh, te defuñu ko ni ñu ko waroon defee le 12 jot ñu ubbiwaat marché bi tey donc population bi yëpp dañu inquiet. pourquoi population bi inqui am inquiétude mooy ni dañu constaté léegi euh, transmission communautaire yi dafa commencé di am mhm. te au marché des HLM soixante quinze pour cent des gens yi nga xamante ne ñoo fay jaay di fa ñëw ils viennent la banlieue et que ñun aux HLM on n'a rien contre les gens de la banlieue c'est des parents c'est des amis mais pour c'est pour sauvegarder les vies sauvegarder propre euh, euh, yokkute wu coronavirus bi ni muy demee moo tax ñu demandé woon au maire nous sursoir à la réouverture du, du, marché jusqu'à nouvel ordre. Le gouverneur a fait un communiqué à la date du Il demandait à ce que, en association avec les maires, la police et la gendarmerie et le préfet, de, de fermer tous les commerces non essentiels. les commerces non essentiels mooy les commerces yi nga xamante ne jaayuñu fa dund jaayuñu fa garab et marché HLM ñëpp xam nañ ni à quatre-vingt-quinze pour cent yére lay jaay dàll lay jaay ay yëfu yëf yoo xamante ne c'est des euh, yoo xamante ne c'est pas essentiel donc maire bi mënoon na euh, sukkandiku ci nopp gouverneur bi di génnewaat beneen arrêté prolongé waat fermeture bi ba pandémie bi wàññeeku pour l'intérêt de toute la population sénégalaise d'accord d'accord dégg nañu kàddu yi daañu jéem a également jokkoo ak le maire quelqu'un également de la mairie c'est important pour ñoom tam ñu euh, bu ñu mënee woo aussi à ce numéro qui s'affiche devant le petit écran ce serait ngi woon ak euh, Fatou Diagne moom tamit euh, maa ngi ko doon laaj ay kàddu mhm. mu jëm ci li nga xam ne moom moo jëm ci manaam parti nga xam ne ñoom ñoo gën a sensible ci lii di waaw mu ngi xaw a gestu wala xam ne dafa war a jël ay chiffres tamit parce que chiffres yi am na solo mhm. ci am na solo lool ci li nga xam xam ne moo di maanaam réponse yi mu war a apporté euh, ñuy gërëm kooku tamit woote mu ngi tudd Njàmbe wala boog na la tuddee sax Mambi voilà Mambi Diaw fële ca HLM alors euh, Fatou. Mhm. ma ñëwaat ak yow xam nga sànq ñu doon wax nga ne Grand Yoff c'est plus ou moins quand même le Sénégal wala Dakar voire même en miniature. à peu mhm. près combien de personnes sont concernées par la distribution de ces livres. donc pour Grand Yoff on a 3421 3421 ménages à appuyer. donc euh, loolu xam nga ni c'est pas une mince affaire. Mm. loolu moo tax euh, comme li ma la doon wax sànq te Grand Yoff déjà dafa xat il faut que ñu trouver benn stratégie boo xam ne dinañu permettre ñu respecter les mesures édictées par euh, la les autorités mais également que ñu def fa sensibilisation bu mucc ayib mm-hmm. parce que sinon rek bu vivre yi ñëwee rek comme li nga doon wax sànq naa nit ñi dañ koo yàkkamti mais lu ñu yàkkamti yàkkamti yàkkamti. nañu sàmmonteeg li waa kër docteur wax. c'est important dajaloo bi la ñuy bañ mm-hmm. donc li muy bare bare bare yépp daañu trouver stratégie moo tax ñu mettre à contribution l'armée nga xam ne dañuy dimbale ci ay tent wala ay dara yoo xam ne dañ fa denc vivre yi ku ñëw mën a jël sa kit normal daañu affrété tamit ay oto ay 4x4 L200 yoo xam ne dañuy ñëw ba ci sa buntu kër ñu tegal la ko fa nga jël ko dem. d'accord xaaral ma jël kii après ñu yeggali waxtaan bi allo allo. allo oui. Euh, mel ni dañ ñu ngi wax ne ma c'est monsieur le maire monsieur Seck. waaw waaw man la man la monsieur le maire na nga def allo waa ñu ngi lay nuyu di la di la di la gërëm di la sant bu baax monsieur maire dañu bëggoon di waxtaan ak yow mm. tuuti ci li nga xam ne moom la ñuy dégg foofu ci sa commune am na kenn ku dugg léegi mu ne danga jël ndogal ibbi marché bi nu yëf yi ni mu demee noonu foofu. waaw moom dafa wax lu ko neex parce que man jëluma dogal pour ubbi marché bi <clears throat> bi may teg marché bi man maa xooloon situation bi ma jël arrêté j'ai fermé le marché du 4 au 12 le 4 bi. gisuma ko gisuma moromam man maa fi nekk ak suma personnel ñu daj yëpp dindi yëpp j'ai fait trois arrêtés un arrêté pour fermer le marché pour dix jours du 4 au 12 à zéro heure def beneen arrêté bu nga xam ne dama ne mbedd mi avenue Cheikh Ahmed Bamba bi parallèle kenn du fa jaay les deux avenues les deux rues de Mountaga Tall kenn du fa jaay Léopold Sédar Senghor kenn du fa jaay j'ai enlevé toutes les tables j'ai eu ça bi mu demee ba nga xam ne léegi arrêté bi mu ngi at arrivé à son échéance l'arrêté c'est du 4 au 12 le 12 à minuit je n'ai jamais dit que man maa ne damay ubbi c'est l'arrêté qui a fermé qui a ouvert maintenant j'ai dit le gouverneur a fait un communiqué ci communiqué bi mu def dafa wax ne nañu jël précaution précaution yooyu laa wax commerçant yi laa leen ne ku ci mën di tijji moment lañ ko tëjoon si maintenant on pense que dañ koy tij tëj du man nangu kenn jël population bi di ko teg suma kaw si je suis la c'est à cause des populations lu population bi bëgg loolu la bëgg lu ñu wax loolu laa wax je n'ai jamais dit dañuy ubbi ou dañuy tëj on a dit qu'on n'a pas désinfecté le marché voilà une autre raison qui est trop grave pour mbaam mi moom moo ko wax hier tout la journée man ci marché bi laa yendu ak service d'hygiène loolu bu ko waxee waa service d'hygiène ñoo koy tontu parce que de 9 heures du matin jusqu'à 14 heures ils ont pulvérisé désinfecté tout le marché donc loolu su ko waxee mais maintenant je donne une précision du man ma ubbi marché man nag maa ko tëjoon bi ma koy tëj j'avais dit dama koy téj de telle date à telle date commerçant yi woon ma ne ma itam lenn monsieur le maire ñun tëj nañu mais ñi janoog ñun ñu ngi tijji je ne peux pas moi jël suma responsabilité mooy ma tëj leneen li ma mun a jël mooy mbedd mi kenn du ci jaay borom boutique yi précaution yu gouverneur wax yi wax ñoom wax naa leen ko ñu ngi koy jàng comme ñëpp mooy nit ku ci nekk sa santé nga bugg je leur ai dit man nag population bi ñoo ma fal. li population bi bugg loolu lay def alors maire. oui mais situation bi fu mu toll nii parce que dégg naa aussi ñu ne bon comme foofu marché HLM ay ay tissus yooyu la ñuy jaay mbiru solo yooyu te comme ten dabul ten talul fu mu toll nii ay mbiru solo xew euh, est-ce que jaaduloon tamit ñu tëj affaire bi ba affaire bi gën a tekk ko bu doon lekk la sax on peut comprendre. mais jaabi. waaw loolu d'accord naa mais gouverneur bi muy def communiqué waaw gouverneur. Hmm. man man je n'ai pas les forces de l'ordre man li ma mënoon li suma moromu maire yëpp def laa def. te maa ëpp jour yu ma fermé suma marché ñoom ñëpp ubbiwaat nañ seen marché marché Colobane ay piis lay jaay ubbi nañ ko nettoyé ko fi ubbiwaat ko marché bi janoog man biscuiterie la piis lay jaay ubbi nañ ko ubbaat nañ ko man dama ne dama ne man waaw je suis d'accord mais le gouverneur aurait dû être plus explicite en faisant un arrêté disant que les marché qui vendent que des tissus qu'on n'a qu'à les Tout de suite, moi, je fais un arrêté. Et je suis derrière ma population. Si la population décide que le marché sera fermé, ils n'ont qu'à venir avec moi, nous irons ensemble pour fermer le marché. Mais moi, je n'ai pas de pouvoir. li ñu wax dëgg la marché bi li muy jaay ay puces la mais na gëm ne itam na gëm ne itam c'est la seule source au niveau des HLM man nag du man maay décider posé nañ ma question j'ai répondu ce que vous dites est c'est un marché ay tissu lay jaay mais c'est des travailleurs puisque ñoom ils sont d'accord j'ai fermé le marché pendant dix jours ils l'ont accepté j'ai dit bu kenn jaayati ci tali bi le vrai problème c'est la rue les gens ne passent pas j'ai expliqué que euh, euh marché HLM c'est un danger hmm. parce que ñu fiy ñëw ñëpp ay étrangers lañu ñu fiy ñëw ñëpp dëkkuñu fi dañuy ñëw aller sur le pont aller devant les HLM vers HLM vous vous rendrez compte que c'est un monde qui déverse ici. J'ai dit que mardi, je ferai un autre arrêté pour interdisant les clandos. Mais souvent interdirait à droite, nous sommes à gauche. D'accord, monsieur le Donc le gouverneur est mieux placé comme. jërëjëf monsieur le maire kontaan nañu ci euh, kàddu yi ngam xam ne indi nga ko leeral nga ñu lay gërëm di la sant bu baax ah monsieur le maire dem na merci jërëjëf monsieur le maire kontaan nañu lool ci euh, kàddu yi nga yëkkati également c'était dans le souci de l'équilibre bon faut ñu dem rapidement la régie parce que on est plus à quelques minutes de la fin de l'émission ñu fekk la sena régie mu jox ñu les dernières informations bëggoon andi quelques rectificatifs par rapport aux chiffres la sena je suis à dans une minute hein juste permettre à madame Diagne indi ay rectificatifs hmm. la je pense que c'était c'est c'est plus que j'avais ce que j'avais annoncé tout à l'heure mais juste pour dire que ni c'est un c'est un quota important boo xam ne euh, par rapport à la taille de la commune ak euh, à la vulnérabilité le degré de vulnérabilité moom moo tax ñu alloué leen loolu chiffres yi nag du ñun ñoo ko inventé c'est l'ANSD qui a fait la répartition en rapport avec la délégation la protection sociale et à la solidarité nationale. dans chaque localité vous basez selon des chiffres publiés par l'ANSD. par pour ngeen soog a sukkandiku ci loolu pour def la distribution. maa ngi ñëwaat ak yow dama bëgg a dem ci Lassana rapidement euh, moom tamit euh, mu tënkal ñu quand euh, laaj yi nga xam ne jot na ko taataan foofu comme ça ma jox leen kàddu gi après ñu yëkkati jotaay Lassana l'antenne est voilà donc euh, les téléspectateurs ak ñi nga xam ne ñoom ñooy internautes yi ñu ngi continuer di interpeller madame la directrice ndax am na nit yoo xam ne nee na ñoom nekkuñu ci euh, ci répertoire bi ci registre national unique bi nekkuñu aussi ci euh, deuxième bi te soxla nañ dimbali ñoom nan la ñuy def tey jii ba mën a jot ci euh, loole nga xam ne ci njiitu réew mi la jógee mun leen ko jàppale ngir ñu gën a mën a dékku feebar bi am na aussi ñuy laajte ci wàllum équité sociale lii lu ñu ci jublu mooy jàppale ñi nga xam ne xëy na seen loxo jotul seen ginnaaw mais est-ce nekk na mbir moo xamante ni réussir nañ ko ndax parce que euh, tout le monde est pris en compte dans cette aide-là qui sera distribuée dans les jours à venir am na tamit beneen interpellation boo xamante ni ça nous vient am na nit ku ne euh, ba léegi am na ay nit yoo xamante ñu ngi déplacé wu donte ni euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ministre de l'intérieur daf koo tere waaye nag nee nañ leen ci jaaxal moo ñu ci ëpp ñi nga xam ne dañuy déplacé euh, ci ndimbalug ñi nga xam ne ñooy takk der yi la kon ñu ngi ñu bi ci euh, plateau bi ngir ñu commenté ko fu ñu koy jeexalee Cheikh mooy benn question boo xamante ni yàgg na ñëwaat tey jii gis nañ ni euh, cas communautaire yi ñu ngi continuer di ñëw weekend bi yëpp quasiment ñu ngi ciy wax nee na nag est-ce que jotul même bu fekkee Sénégal xam ne moom mooy dépistage massif ñu yi nga xamante ne dañ faa détecté ay cas communautaire ñu def fa ay dépistage ko defee ñu mën a réduire euh, lii nga xam ne moom mooy risques yi kon dama ko fi yamale Cheikh dig daje suba incha allah ci beneen alerte coronavirus ci yeneen laaj yoo xam ne téléspectateurs yi ak internautes yi ñooñu koy digtal gërëm di la sant bu baax laa sana donte lundi de Pâques bi c'est pas facile ah <laughs> tey moom jour férié bi yombul ñëpp ngi ko créé mais nag c'est pour le bien également de la nation parce que euh, fi réew mi toll tey jàpp nañ ne toogaay amatul tëddaay amatul ñëpp taxaw temm xeex li ni mel mu jóge fii te ñu bañati gis li ni mel ba ilaa yomal xiyaamati alors euh, soit ma bàyyi la kàddu gi comme yaa ko yoroon nga indi mhm. ay tontu après su ma paree ma jox docteur ñu yëkkati jotaay bi mhm. par rapport euh, waaw laaj bi njëkk bi mooy nee na am na ñoo xam ne nee gisuñu seen bopp ci RNU bi. waaw te gisuñu seen bopp tam ci beneen list bi. fenn fenn ñooñu lu ñuy def xanaa bokkuñu si. beneen liste bi pareegul Cheikh. <laughs> kañ lay pare. beneen liste bi ñoo ngi ci tànn bi ñoom kay li ñu war a def mooy ñu dem siñaalew ci seen comité locaux yi wax nañ leen délégué de quartier mi ngi fa ci la bokk ci comité bi xanaa am nañu femme bu leen jege wala APDC bi xam nañ ko wala bàjjanu gox bi xam nañ ko. nañ ko wax mu bind leen parce que liste yooyu ñu ngi koy defar nii donc dina ma jaaxal ñu wax ni list yi liste yi pareegul ñoo ngi koy defar. urne bi nag moom pare na. waa léegi nit kooku ñëw xam nga laaj bu basique la nag parce que population. des fois bëgg a comprendre. Mhm. yan critère di basé pour wax nit ki dafa ndóol pour commencer d'abord benn. Mhm. kooku beneen bi ñaar mooy est-ce que nit day ñëw rek ne man damaa ndóol damaa soxla ndimbal ngeen jox ko naka lay demee. xam nga sànq waxoon naa la critères yi ndaxte neewoon naa la urne bi ñiñ fa tànn dugal leen fa ci urne bi. ñoom critère de vulnérabilité bi bokkul ak ñun suñu critère de vulnérabilité ñun vulnérabilité par rapport à la crise du Covid 19 la ñu jël. te vulnérabilité boobu mooy ñi mu laal ñi nga xam ne ñoom la concerné mooy ñi nga xam ni euh, feebar bi nasaxal na seen liggéey feebar bi nasaxal na seen liggéey mooy ñi nga xam ne dañ doon jaay guddi waxoon naa ko fi sànq. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañu doon dem di seen euh, nekk ci transport yi. ay coxeur ak ñoom seen ñi nga xam ni dañu jaay dibitari ñi ngi restaurant yi gargotières yi ñoom ñëpp ñi nga xam ni affaire bi laal na leen ba nga xam ne fi mu nekk nii bu daan daw dépense au jour le jour mënatuñ ko ndax feebar bi ak mesure yi nga xam ne moom la ñu jël pour euh, arrêter feebar bi moom moo leen laal ba tax seen liggéey naxasaay ñooñu nag ñoom ñooy prioriser ñoom ñoo la ñuy prioriser mais am na ñoo xam ni Euh, comme par exemple dañoo am seen kenn ku nekk fii dakaar di liggéey di yónnee dëkk ba xam nga kooku bu mënatul dem mënatul dikk liggéeyatul kon kooku foofu noonu kër ga fale soxla nañu ndimbal. kooku nu muy def nag. kooku dañ koy bind foofu kooku soxla ndimbal parce que ci critères yu ñu édicté ci la bokk. léegi moom mu ngi toog fii boobu temps. léegi moom nu muy nekkee fii Dakar wala ngeen di yónnee foofu. moom moom moom la ñuy moom la ñuy comptabiliser foofa. léegi joow li mooy moom mënatul dem seen dëkk léegi ndax dañuy tëj Dakar léegi nu muy def nag ah kooku tam dañ koy jël fii. dañ koy jël fii waaw. Hmm. parce que nag ndimbal gi tamit du par personne ndimbal gi par ménage la mooy par njël bu ñu waxee ni njël mooy ki nga xam ne moom mooy daw njël di daw dépense am di indi ci biir kër gi mën a nekk ku jigéen mën a nekk ku góor. am na wax ji nga wax dafa dafa ma xaw a jaaxal nee nga aussi euh, ñi nga xam ne force Covid 19 daf leen daf leen a laal. Mhm. waaye ñu nekk ci RNU bi nag ñooñu loolu jiitu na force Covid 19 wala. waaw na Ah. jiitu na ko moo tax ma wax la ni la ñoom dañu yeneen critère moo taxoon ñu jël leen dugal leen foofu parce que ñoom dañoo nekkoon ci situation boo xam ne dañu leen waroon suqali ngeen profité waale ci affaire Covid 19 que ak bourse famille bourse sécurité sociale yi ngeen suqaliwaale leen ñoom ñëpp suqaliwaale leen en même temps te terew ñu yore seen bourse famille sécurité familiale boobu aussi nga xam ne jotoon nañ ko am fan yi passé bu bu échéance jotee di leen joxaat dañ leen joxaat te yaakaar naa sax jox ba du fa yem parce que am na yeneen institution yi manifesté wu pour indiwaat ndimbal donc dañuy tànnaat rek ay nit di leen jox donc 1 million yi indi à titre indicatif la rek mooy ñi nga xam ni ñoom la état bi di jox mais ñi nga xam ni par exemple maire yi jox nañ leen institution yi wax na dañ leen di jàppale bourse familiale bi moo ngi ñëw donc loolu yëpp ndimbal la hmm. xanaa ku nekkul ci bii di nga nekk ci biir wala nga nekk ci bële waaw loolu de leer na maa ngi ñëwaat ak yow pour le mot de la fin euh, ma jox docteur incha allah rabbi kàddu gi docteur man am na benn laaj bu ma ci intéressé parce que benn téléspectateur moo ko posé nee na su fekkee dem nañu benn bërëb nemmee ko fa benn cas communautaire ñu ne daal ab fii la jógee est-ce que foofu c'est pas plus intéressant d'aller vers un dépistage massif wala des tests massifs loolu tamit c'est pas mal comme proposition waaw xam nga xawoon naa ci tontu tuuti sànq li boo amee benn euh, cas da xool contact yi mu am yëpp nga dajale leen ci benn bërëb toog benn délai di surveiller di xool ba mu am benn temps nga seet ñi ci présenté kii bi wala nga testé autant que possible ah ñu des nga bàyyi leen loolu bu ñu koy def soit dañoo amul test yu doy wala c'est pour euh, rent être beaucoup plus euh, rentable looloo tax day dellu si si li nga wax testé ñëpp ñi nga xam ne ñëpp yaakaar nañ contact bu ñu ko deful peut-être soit ils n'ont pas les de le faire pour tout le monde mais moo gën parce que wax naa la am na dëkk yoo xam ne loolu boo demee Corée ils testent tout le monde presque ils testent tout le monde bàyyi nit ñi ñu su mhm. suñ ko deful c'est fort possible que parce que du yàq tester tout le monde est toujours bénéfique cest autant que possible c'est toujours bien parce que da ngay extirper tous les cas ñi nga xam ne ñi ngi doon xalaat ñu naan porteur sain ak ñi nga xam ne cas communautaire ñëpp ngay génne et et boo testé tout le monde ñi nga xam ne cas communautaire moo leen wàlloon sax da nga génne wàll sur le principe Sur le principe, c'est ça. Mais sur le principe, est-ce que c'est possible Financièrement, est-ce que c'est possible Techniquement, est-ce que... Ça, c'est des questions auxquelles le ministère moo ci mën a répondre moom c'est son vœu loolu la ñu bëgg rek loolu mu loolu loolu bu ñu ko mënoon am moo gën nga dem Pikine mi ngi mel ni ñu ne Wakaam wala ñu wax beneen dëkk Pikine wala Yëmbal ñu ne nañ nañ confiné Wakaam euh, testé ñëpp voilà wala ñu ne nañ confiné Dakar testé ñëpp wala ñu ne Dakar ku fi nekk te teg koo masque dañ lay sanctionné vous voyez un peu quoi c' est c' est des c' est des mesures ah mën nañu xëy ni Dakar à partir de lundi Dakar rek la ñu wax waxuñu Sénégal li ci def Dakar yëpp ku amul masque nga ñëw ñu jox la ma ñëpp takk masque c' est des mesures. et c' la réduction de la pandémie de de l' épidémie quand même. Ah, loolu lu la masque ñëpp takk ko. mën nañu Dakar ñu jox ñëpp masque parce la seule solution. c' est hmm? une possibilité c' est une possibilité ñëw ni Dakar ñëpp ay takk masque xam nga moom dafa dem ci lu gën a cher lu mu tudd sax. ñu doon mën a test test bi autant je pense que ça coûte xaw ma na am na sax loolu dégg naa koy wax ci benn rajo mu ne test bi cher y a des tests est-ce que c'est disponible et c'est à notre portée parce que ñooy defar test rapide balaa ñuy jox dañuy dañuy dañuy matal ba pare. effectivement. Mm-hmm. donc c'est toujours beaucoup de trucs yoo xam ni la nga ciy am ak néew mooy nga dem am ci kenn ku la jox 10 000 mais 10 000 pour tester Sénégal c'est rien du tout mën nga ko lijjanti Mhm. peut-être ça peut régler quelques problèmes. Oui. je je pense ça peut être toujours utile. c'est vrai. mais en tout cas je pense que autorité ñi ngi xalaat ci test test ñëpp. de solutions yoo xam ni bu ci nekk c'est ça dépend est-ce que c'est à ta ou pas. Mhm. si c'est à ta y a pas de souci si c'est pas à ta nga jël solution bi nga xam ne moo gën a nekk à ta portée. mais le principe c'est dépister le maximum possible. Mhm. prendre les mesures barrières et puis éviter. le confinement bu mën léegi lu jëm ci euh, parce que temps bi moo jeex fu mu toll moo tax parce que léegi ñuy jot lii kat jotaay bi en maximum cinq minutes. Mhm. Euh, ci zone tropicale yi parce que dañuy faral dégg ñu ne bon entre guillemets c' parce que bon euh, l' Afrique wala ñun dañu nekk dans des zones tropicales moo tax bon plus ou moins maladie bi mu ngi fay développé wu il fait un peu chaud durant certaines périodes de l' comme par exemple période de été bi tout ça feebar bi du mun développé en tant nga ñuy wax xam nga déjà tout le monde reconnaît que ni à 60 degrés. Euh, masque yi nga kii boo paasee kii dafay rey virus bi beneen kii bi mooy nit ñi nous avons constaté que ni bëriwul Afrique c'est-à-dire ba bëriwul mais am na fi mais ni muy ni muy gaawee law. c'est vrai pourquoi gaawee law comme fële parce que on a à peu près les mêmes habitudes mondialisation nit ñi presque. Mm. mode bi fële moo xew fii les gens ont les mêmes habitudes génn guddi dem dox tout ça c'est la même chose partout pourquoi gaawul est-ce que c'est une particularité africaine. mais loolu c' est après qu'on qu'on saura pour le moment c' est un c' est terrain glissant. boo ci duggee te amoo ay arguments objectifs ay objectifs objectif lay daf lay réeral mais en tout cas c' est sûr et certain avec le temps on saura est ce que y a quelque chose qui est lié à la peau noire est ce que y a quelque chose qui est lié à l'environnement est-ce que y a quelque chose qui est lié à nos habitudes. il paraît que africain aussi li ñuy grippé dafa bari moo tax aussi comme li genre forme de grippe la donc du coup dañuy xaw a immuniser am na ci paludisme de prémunition dans le palu dañ koy wax maanaam am na ci ñoo xam ni siburu bi dafa bari bari ba nga xam ni ci yenn dëkk yi que finalement ñenn ñi siburu yu bari ñu doon siburu ak kii bi ni muy siburu dafa dem ba nga xam ne dañuy résistance dañu am benn résistance par rapport à ça c'est ce qui fait que ñi nga xam ne dañoo toog lu yàgg demuñu ci zone de palu jógee France wala fenn bu ñu yegg see dañ leen di protéger pendant un mois avant ñu yegg si un mois ñu nekk fii après bu ñu dellu donc dañ leen protéger vraiment pour ñu bañ a am palu parce que seen yaram amatul capacité de kii parce que bu leen dalee rek rapidement il peut faire un paludisme grave. Mhm. parce que ñi nga xam ne fii lañ màggee nekk fi tout le temps yooyaa ngi leen di màtt plasmodium di dem ak ñëw di wàll kii di kii dem ba dañuy am benn résistance loolu mën na expliquer peut-être parce que mënoo ci kii que ni. Afrique dañuy am grippe dañuy am lii dañuy am yu bëri yoo xam peut-être moom moo tax ñu mën a am benn une certaine boo xam ne moo ñu permettre peut-être ñu bëri ay cas yoo xam ni feebar bi du feeñ si ñoom dañ feebar ba wér duñu du ñu génn ak yenn cas grave yi gën a ko mais encore une fois il faut que ce soit basé sur des faits scientifiques mm-hmm. li ñu observé yi rek nii nii nii rek mën nañ ko wax mais doo ci mën a basé wu pour wax ni réellement suñu environnement moo ñu permettre ñu ñu mën a mucc ci kii bi actuellement <coughs> wala dafa am loo xam ne suñu yaram moo ñu koy kii pour le moom li ñu xam ni boo ko defee moytu ko loolu leer na doo ko am cas yi nga xam ne garab yi nga xam ne moom am na gis nañ ni day tax feebar bi gaaw a deñ day dimbali sa yaram leer na mooy chloroquine surtout moo nekk au devant de la scène beneen bi mooy naa a nos autorités yi nga xam ne dañuy gérer vraiment tous les cas graves cas sévères yi nga xam ne duñu yegg fenn mais encore une fois il faut pas que ñu dem vers la facilité quoi. xalaat nii dañoo nekk ci climat bu tàng déjà am na ñu fi nekk climat bu tàng environnement mi ngi leen dal. donc pourquoi ñu bëgg a wax carrément que ni loolu peut am na leneen loo xam ne moo tax feebar bi lawoogul mais xamuñu ko de façon objective quoi. bien pour ne pas être trop. léger quoi. et puis juste quand même pour daane parce que il est moins 10 actuellement. Mm-hmm. Euh, dégg aussi le BCG. Euh, am na jour rôle bu important mu moo tax xale yi en fait euh, voilà ils supportent mieux donc euh, cette épidémie quoi. waaw xam nga l'immunité à médiation cellulaire xam nga. Mm-hmm. loolu c'est c'est bu ñu jëlee benn vaccin vaccin bu mu mën am na vaccin yoo xam ni dafay exciter un peu le, le système immunitaire. am na macrophage yu globule blanc yeeg yooyu yëpp bi nga xam dafa am habitude yoo xam ne ñooy dem dem lu xew ñu ñëw taxaw phagocyté donc am na benn défense boo xam ni immunité mi ngi ci nit ki donc ñi nga xam ne jël nañu ay vaccin tuberculose am na lu seen yaram développé mm-hmm. te loolu buy c'est pas spécifique moom la am na immunité yoo xam c'est spécifique cest dire quel soit alpha lépp lu dugg ci yaram bi rek moom da koy attaqué seet nu mu koy gérer am na nit ñoo xam ne immunité boobu dañ ci am lu taxaw lu dëgër pas tout le monde maintenant nag les vaccins les trucs ça concourt à ce que loolu gën am doole donc euh, mais dans le cas actuellement de de toute cette polémique qu'il y a autour du vaccin ak la manière ak médiatisation bi fait que boo ci boo ci waxee wala nga commenter ko finalement doo am argument yi lay permettre nga mun a mais tout ce qui est antérieur euh, à ça maanaam BCG bi fi amoon ça fait des années ñu ngi koy defal xale yi la première semaine de la naissance programme élargi de vaccination aussi c'est excellent parce que ñun bi ñu nekkee xale dañ daan gis ay ŋas yu bari mais gisatuñ ko la moo tax il faut ñu expliquer ko peut-être parce que ñu ngi def vaccin contre la rougeole et c'est ça réellement donc tout ça vaccin programme élargi de vaccination c'est quelque chose de très intéressant et nga xam ni temps xale da nga gis bo yu bëri ñuy lafañ di ah. loolu amatul gisatoo ko presque. pas du tout donc on peut pas réfuter que ni réellement le programme LH de vaccination a été utile. est important te def nañ ko je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire maintenant il faut toujours respecter les règles avant de d'introduire quoi que ce soit au niveau de des populations. Le professeur Ngala Djité donc il, enseigne à l'UGB moom euh, Euh, bëggoon na dugg sànq ba léegi il a essayé donc d' appeler mais malheureusement il n'est pas c' est pas passé donc mu envoyé SMS ma bëggoon juste nga commenter juste sa réflexion parce que nee un cas communautaire est un cas contact perdu le ministère doit travailler davantage pour mieux cerner les cas contacts l'expansion de la maladie viendra des cas communautaires. absolument absolument quand il disait un cas contact perdu il a eu à contacter la maladie à travers quelqu'un qu'on ne Parce qu'aujourd'hui, quand tu as devant toi un cas communautaire, c'est parce qu'il a eu un contact. Mm -hmm. Contact nekk Parce que, ça dit, derrière le cas communautaire qu'on a, il y a quelqu'un qui l'a contaminé qu'on ne pas. C'est ça. C'est ce qu'il essaie d'expliquer, quoi. Mm. Vous voyez un peu, quoi. Bien sûr. Mais, mon bouillec, c'est, je sais que nous savons qui nous la wal. Moi, je sais que nous savons qui nous la wal. mais moom ki ko wàll moom mooy. Hmm. xamuñu ko. Hmm. il est dans la nature. c'est vrai un cas communautaire. peut peut la maladie à un cas contact parce que dinañ xam ne kii moo ko ko wàll. Hmm. mais le cas communautaire xamuñu ko ko wàll. xamuñu ko ko wàll ah, c'est ça te kooku il est en train de il est dans la nature. il est dans la nature xamuñu ko mais moom moom ñi mu wàll wala ñi yaakaar ni wàll na leen nag dinañ ko xam aussitôt. bien sûr autant que possible mais moom ki ko wàll il est toujours dans la nature et te kooku lenn rek mooy tax nga moytu ko mooy ñu respecter les mesures d'hygiène individuelle et collective ba këree ñuy téye ci loxom wax nga dëgg y a ba keroog ñuy téye ci loxom et encore mën na wér sax. c'est ça. après moom mu créé waat yeneen cas communautaire parce que ñamu wàll du ñu xam sax moo leen wàll wala je sais pas parce que il est là il a bougé donc finalement euh, c'est les mesures d'hygiène encore parce que euh, l'État am na loo xam ne la mais am na loo xam ne ñun il faut ñu wax population bi. Euh, il faut li ngeen mën a def yéen li ngeen war a def kenn lu ko defal. Mhm. l'État ne peut pas se substituer à la population c'est pas possible. c'est vrai. Euh, autorités sanitaires yi aussi kenn mënu substituer ak ñoom mais l'État aussi on peut pas substituer à l'État boo bëggee jouer jouer rôle État da ngay bàyyi sa donc jouer correctement c'est vrai que les critiques sont bons euh, mais aujourd'hui y a une solution face au Covid mais à plusieurs niveaux population bi na def li mu war a def man c'est comme ça que je vois les def li ñu war a def État bi def li mu war def mais boo deful li nga war a def ba pare nag après en retour à chaque fois qu'il y a des nga yaakaar ni yow doo ci dara mais si ça progresse parce que tout le monde est responsable et à tous les niveaux. tout à fait c'est important c'est vrai alors ma bàyyee euh, madame Fatou Diagne le mot de la fin fu mu toon yegg si fu ñu yëkkati jotaay bi lan ngay tëjee. Euh, li may tëjee rek mooy ñaaxaat population bi pour euh, ñu respecter yi nga xam ni moom la waa kër docteur yi joxe. mesures yi nañ ko respecté parce que moom moom mooy tax Sénégal am jàmm et ku nekk mën a delluwaat ci sa yitte mais également di leen wax ni leen ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale jël na am na euh, entouré wu na du toutes les garanties pour que distribution bi nekk ci processus bu baax bu gaaw mais également bu leer boo xam ne itamit dana respecter kaaraange ñi leen di jox mais également kaaraange ñi ñu koy jox donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax jarul njëkkante jarul buuxante jarul kii parce que ku si nekk daañ la fekk ba fa nga nekk ñu jébbal la li nga xam ne moom la président de la république teg sa loxo. Hmm. jërëjëf soxna ci kontaan nañ Fatou Diagne mi nga xam ne mooy directrice de l' sociale fu nekk fële ci ministère du développement communautaire de l' équité sociale et territoriale ñuy gënam aussi bu baax euh, Amadou Niass mu di médecin interne nekk chef de service fële ci hôpital de Pikine ñu lay gërëm di la sant bu baax di gërëm aussi suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne euh, jot nañoo participer ci émission bi euh, via suñu réseaux sociaux yi ñuy gërëm laasana mi ñu doon taataataan xibaar yi wala kaddu yooyu wala laaj yooyu nga xam ne sax c'était fële au niveau de la leen di wax jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ba suba ak jàmm

l'équipe de basket de l'ASC Ville de Dakar vit cet arrêt forcé. basket moom vraiment manqué na ma. man mm, basket manqué na ma namm naa basket trop trop vraiment. on reste chez nous on s'entraîne là-bas. on le vit difficilement. lu yàlla namm kenn mënu ci dara. avoir un terrain à ta disposition. c'est avoir de l'or. faire le double championnat Coupe du Sénégal donc c'était un projet de du président et avec le coach Moustapha. ça il faut le dire on a travaillé très dur pour arriver à cette stade. et, et ça paye. On rêve de l'Afrique, mais également aussi les dirigeants sont sur, le, sur ce projet-là. Si on n'est pas présent au niveau club sur le plan africain, mm -hmm. mais on ne peut pas progresser. Tout ce qu'on peut, c'est prier pour que ça s'arrête rapidement ouais. et que